la glace vie, papa, tes yeux me de voler, baby, y'a life. la y'a life. you I love you. Baby, I love you, I love you. I love you, I love you. Baby, I love you, I love you. yee Bril la nga koy am live and direct maa ngi koy jox bépp number one Bril ak képp koo xam ne Bril fight foo ngay bégee nañ ma bàyyeeg sama yëf

xamante ne da nga am sa baby di ko woowee sama life all right Bril la di wax sama gars ne am na ñoo xam ne dañuy xaar Bril bi rap donc mag leen di jox bi muy dof si yow di ko jox bépp number one Bril ak képp koo xam ne son bi mus na la neex mag la koy jox yes benn bis nga romb ma seen la jaar fi nga aaw bañ nga ma tax ma xeeb waaxu di daaw bàyyi topp sa ginnaaw wóola nga taxaw ma sax laaf te naaw tegal la jege wax li xol bi bége la laaj lu la neex nga wax ma def ko wan la lépp dëgg la gëw ma ni nga ma te déglu nga ma ba jox ma numéro bég naa ba may la bis bi dox retaan nga ma meero xel bi tukki na sori na xalaat yi tàmbali bëri na avance bi dootuma toggati mi futteeku bëree na ñoo génn di wëri ba tere fu sori te xolu ñu ëri dugg ñu ci këri wax dina ci bëri li nañu ko sori jàppante dund li nekk ci kër aha Baby, yow la yaa ma feeñu wan ma jox ma real love ay gént la ma di kéema ma yeewu lépp di ma la jegee lenn dootuma jawati lépp laay man tey warul sedd pare ko xaar ma léegi maa ngi ci yoon dama bawoon lépp lu jëm ci loof nga tàlli ba fu ma la gisee gën di miir di jaxle ci salaire bi jaral nga ma liggéey fayeeku weer jox la salaire dëgg la waay dégg ma bëgg ma déglu ma dégg ma wax nga tontu ma dégg ma garal ma egg ma saay bu mettee séntu ma wallaay geng sa laata fu ma la gis soppeeku endo xelil ma café bi loo wax je suis avec yaay sama Lisa ci sama jëlaay bind sa tur bi woo la nee na Lisa yaa ma dakkal jabaru jëy si xoluma Rihanna ndax sa biis yi dara du easy gën nañu biisi lii mooy loof te dañu ci crazy yeah Bril fight foo la ak Mami Patara donc soo mu ngi bokk ci analyse yeeg maa ngi koy may ñëpp ñi nga xam tey number one Bril lañ ñëpp ñi nga xam ne Bril fight foo la ñu yàgg a di ko bégee yee yéen moom lii sama gaay yee yi fan la ko jant bi di tiim mami Patara waaye sama artiste bi. yee maa ngi nuyu famille Patra yëpp di nuyu suñu maman Aïda di nuyu Khadija bu baax a baax ma meen Chait Chan maa ngi lay bëggee bu baax. yee am na ñoo xam ne nag dañuy bëggante waaye dañuy xuloo dañuy xeex fu ñu toll quoi léegi. bu ñu gisee rek dafay mel ne dañuy bu ñu gisee rek every day dañuy dañuy raak dañuy xeex tu vois mais bu ñu sorantee kenn mënul bàyyi sa morom quoi donc ñu bëri nga koy dund affaire bi nekk sa love tu vois ñu bëri moom la ñuy dund maa koy jox képp koo xamante ne yaa ngi nekk ak benn nit boo xamante ne moom mooy sa laqal quoi donc da ngeen di xuloo mais mënoo leen bàjj da ngeen ànd donc ji laatal ñu loolu eh, sa love la let's go sama gars yi Bril Fight Foo dundu kenn mënu ko xam tey dañuy gise suba nu reeroo mën nañ xulloo ma foog ne man rek nga bañ te bu ma la sore nga def ma sa duñu ànd te duñu bàyyi na sax ñu naan ma gis nañ la keneen jubóo hey girl stop trying me yo nee nga nga am jàmbur ak yow ante simanirayante amna lo ma def muna tuma la fatte gangsta gangsta gangsta gangsta love gangsta gangsta love you play with me oh i don't know why i can't leave you alone you you on my mind can't put you out of my way. Yeah, yo. Man, I forever. Can do them for days tomorrow. Then you go chicken, they do need soldier. Yo, Hey, girl, stop trying me, yo. They no yante, mini nyoba yante, metit benyi dum sa loolu mooy gangster love yeah yeah yeah am na ñu naan Bril Fight foo dafa bëri ñu wax ci love mais seulement love moom mooy life te wax ci love mooy yaa ngi wax ci life bi dafa bari ay affaire yu bari yu nekk ci love yoo xam mënoo wax ci benn son rek gangster love bokkul ak sama life parce que gangster love da ngeen di xeex am na sax leneen am na ay gars yoo xam dañuy gis benn booy bëgg wax moom pendant dix ans duñu wax ak moom dañ koy ragal. ñu gaaw wax seeni sentiment ay tappet lañu <laughs> loolu mooy tiital na ma ok sama yi nga xam dañuy topp gel ay dix ans nga xam ne récolte la wax seeni sentiment <laughs> pour yéen la bi ñu gisee dama laa xool am lu yëg daanu leer ngerombu noye noyee duma te mankew nit ñi bari mu mel ni yow rek yaa teew ma lay gis ne wer ci biir ay mi magi ngi vidéo bi Paris magi ngi bégee di sama gars yi nga xam te ñu ngi Paris yëpp ñi nga xam ñu ngi ñuy ci live bi ma ngi leen di bégee bu baax a baax. maa ngi toog di analyser fu may jaar ba am la dund ak yow paradise fu ma tollo lay gis yaa ne samay ay mësuma la ko waxte maa ngi waaj a doof commencé naa def enquête te du ma inspecteur ndax loo def tàkk ci yow sama xel mi yaa ci ne bëgg naa la lool bay gént ni dund loo fu ma la gisee

kan laay liggéey ku ma jege dinaa ko ko a dafa mel ne dañ ma liggéey ba ma gëm ne man sax la naa am nga laaj dagg li ma yëg sama biir bàyyi li def saay booy romb sama gaay gën a doon ragal di ma tooñ foog wax li ma bëgg daa yomb damay xiib gis rek suur day sedd ngay tàngal sama yuur wallaay ma yëg nii danga fay jaar ma jiitu la fa mel kuy xaar buur

gisee ma meroon damay ree bëgg naa la lool mu suñu dund lool jeex naa ci yow sama xel mi yaa ci neex bëgg naa la lool ñëwal ñu dund lool fu ma la gisee li may wax damay ree bëgg naa la lool ma ñu dund lool daf ma tiital yee تما خليك سما خلني يا كنان ضبنا اللون يولني بالله ثم لاقي سيد لما الوحدة ميرين sa brille brille sama gars yi donc lii maa ngi koy jox gars yi ragal yëpp pour ñu am fit quoi parce que affaire yi tamit li nga bëgg boo waxul nan lañ koy xamee gis ndur sax wéy ne ko ah. sama gars yi tax leen seen fit yi tuuti ah, ngeen jóg wax li ngeen bëgg mais dañuy dañuy dem mooy bu leen fenn benn destination boo xamante ne bokkul ak affaire love parce que nit bu ne bu ngay si sa dund am na kenn koo xam te danga doon ànd ak moom soit mu nekk sa parent wala sa yaay wala sa ndijaay wala sa mag ngeen dund lu bëri mu xëy benn bis rek gisatoo ko maanaam mu dëddu la mu dem fu sori gisatoo ko wala mu nekk ku gën àdduna donc maa ngi lay jox son boobu parce que nit ku ne am na koy wéetal am na koo xam ne bu ko xalaatee rek xolam day fees soit sa benn parent bu génn àdduna la wala sa benn xarit wala sa benn copain wala ku ne donc maa ngi lay jox son boobu noonu tamit euh, ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal parce que ñaan rek moo des donc voilà maa ngi leen jox wéetal nga ma yes pour yéen ñëpp la everybody naa fu ne dem naa fu ne gisatuma la jaar naa fépp foo daan nekk wax naa lu ne déggatuma la sa dem wi lu ma la li fi bàyyi sa su tiis la du ma ko du ma noppi foog ma gis la ñàkk la lu may jooy wante duma leen dégg uh-huh. boobu maa ngi feneen wasen piis kayam bu xat xol ñu toog di kaf di reetaan man duma si mën a bokk sama xel a ngi si yéen wasen piis platinum jéggi raay fàttaliku naa bi ñu ree bi nga daan def lu ne daf man wasen piis sama papa di ma taxaw papaay képp ku génn àdduna fi mu toll nii ci sama dundu daara safatuma xaw ma lu ma tekki di jariñ dem jegewoo ma sori nga ma yow xëy nga dem ma seen pis pakoti kay bi weetal na ma waroo dem bàyyi kalngama gaumani dumalagi saki fannin namuna wetal ngama ñanna la wax ma fan nga ne bu ma xamoon fi nga nekk ñëw fa wax ma fo ne

yeah Bril Fight foo la sama gars yi voilà maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax maa nekkoon ci animation bi voilà xam naa léegi li ñuy def mooy damay delloowaat P Mr P. non mais mais balaa nga ñuy delloo xam nga dafa am loo xamante ne lu bees li nga génnee récemment tu vois. ya gars yi di ko wooyee Paradise. waaw mooy aljana. waaw gis nga donc dama bëgg tey euh, balaa ñuy commencer suñu plateau. nga nga may ko Sénégalais yi africains yi ah ñi nga xamante ne ji ñu ngi seetaan à travers Bril fight for PNG. gis nga gaa ngi lay xool ah, lay xool. waaye sama gars yi ñëpp ñu may xool maa ngi leen bu baax a baax a baax. en fait Paradise benn single bu bees la boo xam te ne d'habitude sama son yi maa koy maay def composition yi parce que en même temps beatmaker la. sama son yëpp maa ko mais bii li tax mooy spécial mooy defuma composition bi. beneen loxo la beneen sénégalais boo xam ne mu ngi New York tudd Taf Sound. Tafsan déjà son fataa yu bëri moo ko doon defar. yaa tur bi jox na ma son bi film ci fexe ba sama numéro et tout ça fexe ba jox ma son bi donc ma récupéré données yi def enregistrement bi mixé masterisé. Mm. mu nekk bon benn affaire boo xam ne lu nice la parce que bi mooy first time gars dégg Bril way en anglais ba mu jeex. waaw parce que d'habitude bi ma nekkee école dama ayoon ci anglais. donc ah tout le temps gars yi ñuy pourquoi. yow da nga taxawoon ci anglais tout ça mais ça yi tout le temps wolof wolof ma leen bon il faut que ma def lo xam tane Sénégal lay gagner quoi. parce que tay mo na ngay def international fek sa wa dëkk xamaguñ la. donc voilà comme légui ñu bari ñoy dégg Bril Fight for tout te bëgg nañ tamit di rivaliser ay artistes international comme ay Davido wala whiskey wala kenn Ken whatever. Mhm. ñu ne pourquoi pas ñu tenter def ben son bo xam tane ku nekkul Sénégalais boo dégloo dina xam ne li lay wax ci son bi. voilà ma son bi titre Paradise. Paradise si boppam Paradise mooy aljana parce que aljana mooy xam nga li mhm. li ñu dikk quoi bu ñu dee sax lu neex la quoi donc ça lépp lu neex rek dinañ ko jàppee àjjana pour man loolu laay woowee paradise en tout cas man kii ma bëgg nekk moom paradise laa koy woowee donc ah, <laughs> ñu déglu paradise képp ku am bébé d'amour jëlal paradise yaa ko moom Let's go. I know you are my life, my superwoman. I'm the one who gives you power, call me Superman. She says she wanna marry me, yeah, hey, oh. Girl say all day she loves me, yeah, hey, oh only one. I love the way you love me, yo. Oh. My is the number one. You treat me like a king, yo. I'm a love for If you're with me, everything will be alright. I will never play with your love, and I wanna love you for life. ici non tout seulement Brain Fight 4 exclusivité Master P. Paradise. Paradise euh, au plaisir bien sûr euh, de tous les mélomanes euh, de la King FM 99.4. Vous êtes en train d'écouter bien sûr Brain Fight 4. Alors sur ce Mr. D, il y a de cela bien sûr c'était hier je pense. Hier c'était mardi non? Oui, euh, l'équipe nationale de football du Sénégal ont joué, ils ont gagné. Bien sûr, l'ensemble des artistes ont manifesté, bien sûr, leur joie. que... <laughs> ok, alors euh, très rapidement damay wax euh, manager Bril bi mu dem jëlil ma gaale Bril Mayo Sénégal tu vois Yoni tamit Kader mu dem kër PNG dem jëli Mayo équipe nationale Sénégal parce que tey dañu war a dañu war gars on est des vrais des vrais supporters bien sûr de l'équipe nationale de football du Sénégal alors très rapidement on va vous donner ce son et puis juste après permettre on va permettre à 10 personnes d'entrer en direct tout à l'heure bien sûr euh, préparez-vous dans 5 minutes euh, ça sera le direct au 88 628 99 90 bien sûr mais avant cela on va vous offrir euh, bien sûr ce son alors ce son quels sont les artistes qui ont composé le son il y a son euh, Viviane le ak waa Dabrens ak Jibi ak euh, box bu seen kumpa ak Bril Fight foo mu nekk benn son bu ñu def vite fait ma composé musique bi voilà. donc ah yaa euh, composé bi et tout. mais bi nu mu demee la fekk ngeen tànn Viviane tànn tànn tànn Baye baabo Da Prince kan moo tànn affaire yi. waaw loolu nag Baxaw moom moo moom moo présent projet bi Baxaw moo ko initié. waaw moom njëkk a woo ne ma Bril dañoo bëgg nga ñu job benn affaire bu nice ci Lions yi parce que tey loolu rek lañ def quoi donc ñu nekk entraîneur tamit am na te wax sax gis naa ko parce que bi sama paree dama ko envoyé Cheikhou Kouyaté mu xamal ma ni dugal na ko ci groupe WhatsApp Lions yi ñëpp jot nañ ko te gars bi ñu ko jot dañoo kontaan te loolu avant match bi la donc mën nañ te tey loolu mën contribuer na ci li tax tey joueurs yi dañuy gën a am jom et tout ça pour ñi nga xam dañuy wax non gars yi waruñu waay Lions et tout ça non dañ ko xoolee lu positif xam ne bu ñu leen wayalee li son dafa dañ leen di encourager juste mais Sénégal ñoo war a bàyyi esprit bu négatif bi ñu demee positif loolu dañ ko def juste pour que yokk leen jom wax leen ne yéen ay gaynde ngeen da war a xare da war a muyee la maye tout ça dañ koy def ay Shakira koy def loolu la quoi donc voilà mu nekk tamit lu nice ñu def ko ñëw extraordinaire voix vous nice bo changé mm. fu mu day nice donc voilà gars yi yëpp nice bay bay babu aussi si donc voilà mu éclat nice ñu rek ko vidéo vite fait alors que actuellement vidéo bi commencé na daw gars koy ah, like voilà non nice et puis tamit euh, toog naa dégg ñu PNG ñoo koy dawal donc ah. affaire yi fait buzz parce que PNJ lui ñu buzz. voilà ñu kontaan ci bu baax baax baax quoi. Mm-hmm. ok alors sans tarder on va écouter ce son très rapidement et puis juste après permettre aux auditeurs bien sûr de parler avec leur idole leur artiste c'est au 88 128 99 90 préparez-vous les auditeurs dans cinq petites minutes bien sûr on va ouvrir le direct pour vous oui les auditeurs de King FM 99.4 mention spéciale à Tidian Digital. judgment. Nothing you put up in and only Senegal. Never give up, Senegal to prove the moon. Nothing you put up in and only Senegal. Wonderful Luni Senegal, different Luni Senegal. Muyo Mayu, Muyo Muyo Mayu Senegal. Nanyu and the Jimaja puts it you go. Oh, give Senegal in the finale. yéen wi tiis na wane jom ak sa ndax fa ngeen seen ay morom ñoo fa ne doomu Afrika yëpp ngi seen gannaaw alele yoo hee ñaa fe leen ba dee gaynde njaay ci jigo man du mbokk selali yëkkati leen suñu drapeau àdduna ñëpp naw leen bit dana dugg jaaxit dina yëngu na tar metti na saf sàpp amul seral Never give up, Senegal Jacob Jimon. Nothing jump in and i Senegal. Never give up, Senegal Jacob Jimon. Nothing jump in and i Senegal. One if Senegal, Senegal, we're my yee ñamagut wante ñaani nag yëppal ba benn la Afrique ñëpp a naw Sénégambia Sénégal ma ne géej na moo xumba de depuis dara safatut géej a laajte wala juuf dugalut mbate fadiga kamara lakkagut man dina ma neex bu gaynde demee àlla indi fi yàpp kër gi neex walaay man dina ma neex ok léegi gaynde màgg na ba mbar mi lang na nga nangu ne mooy buuru àll bi dikum daakum bu xekkandi ci compétition bi ko rombul rek fàddu ko xale bi yaatu na te yaay borom ñi lay bàyyi xel bu dara ñaaw gaynde gu nga booloo Never give up Sénégal ca coupe du monde Catching up and I'm Senegal. You want it for Lunis, Senegal. You feel for Lunis, Senegal. Kibagambi, Mali, Sénégal, Kibagana, Gabon, Guinea, Bissau, Orum, Sénégal, Enga. Alléluia. millions, derrière le lion. Guinée, sa drapeau, ne est 15 millions, derrière le lion. Yobunga, drapeau, puis place, elle se pion. Malgo, Koulibaly, tous les sages, on manage, les passes, Jafara. Passal

Virginia put up in and only Senegal. Never give up, Senegal to Coupe du Monde. Virginia put up in and only Senegal. Wonderful, Senegal. Merci beaucoup Délire total euh, dans les locaux de King FM. Alors, ceux qui nous suivent, bien sûr, à travers le net, vous êtes en train de voir les délires de PNG, les délires de Bril Fight En pleine action, hein. Gars, les clips, hein. de Defni, là. Hein? Non, mais c'est clair, c'est clair. Les clips là, hein. Right now. Attention Sénégal, Bril Fight for Viviane Chidit, le groupe Dabrance, box de scène Kumpo, Bye Babou. Exclusivité dans les locaux de King FM. Uniquement pour les Lions du Sénégal. Ils sont les numéros 1 dans leur domaine.

eternamente na amul serel al momin momin ci kaw amul never give up Sénégal ci coupe du na ci ndam Sénégal never give up Sénégal ci coupe du na ci ndam Sénégal Alors, qui est sénégalais Qui est fier euh, du son de Bril Fight For alors j'ai posé quelques petites questions bien sûr à Brille. Euh, question de mieux le connaître avant de prendre le direct, mais à l'instant même, euh, il y a un auditeur qui insiste pour parler avec Bril. On va le dire rapidement bonsoir. Bril Neko, bonsoir. Yeah, bonsoir, Bonsoir, ça va, comment ça va Yeah, Mangi Cool, la yaay sant yàlla bu baax a baax. yaay Dakar naka waar. ça va je vais bien. waaye maa ngi cool sant yàlla bu baax. sa job nice na. Yeah, merci beaucoup Aïda. li nga ubbee sama live ba ma gën a neex. waaw may naa la sama live bi yow. merci gentil papa. merci beaucoup. Yeah, noy woowee noy woowee noy woowee sa bébé d'amour

non Bref day ñëw. <laughs> sama diwaan la dama war a teew Mbour yow ñu def fa lu nice bu neexee yàlla. non non di nga en plus tamit am na lu ma la waxoon dama la koy wax eh. lañ samay frère lañ. neexuma. jëndalee ñooy bëgg di jaxase rek ma jote wuñu dara. dafa nekk ne leen xool kon donc ko. la samay broda lañ samay broda lañ incha rajo yow kenn nga ñoom ñaar lañ léegi yow dafa tuur rek nga wàcce sa bopp voilà après mooy loolu. àdduna amul solo incha allahu rabi loolu laa yàgg def ci dinaa continuer di ko def bu neexee yàlla. ok amul benn problème benn la benn la quoi Akhlou Brick ak Bril Fight foofu moom benn la quoi. Merci. Euh, merci beaucoup à Aïdaka. Elle est très gentille, bien sûr. C'était notre première auditrice. Alors, très rapidement, on va faire euh, une petite pause de 3 minutes. Euh, question de parler avec notre invité pour qu'on puisse permettre aux Sénégalais qui nous écoutent, aux Africains, au monde entier qui nous écoutent de connaître qui est l'invité, bien sûr, de PNG dans les locaux de King FM Dakar 99.4. Alors, les auditeurs, dans 5 minutes de la Direct, eh bien, au 88 628 99 80

donc voilà content naa tey dañ doon dañ doon vidéo bi lañ doon tourner wat quoi clip bi. ya gis nga gis nga délire yi ah. Lion yeah dafa nice mais. ok donc avant que ñu ñëwaat ci Allez Lion bi gis nañ son yi nga jot a tegle euh, may ko sénégalais mais avant que ñu ñëw ci loolu yëpp bëgg déjà ce tour bi dafa xawa anglophone trop quoi. Fight for. est-ce que mën nañ am tay à travers émission PNG, xam euh, carrément fight for naka le tudd euh, réellement. yeah fight for mo ngi tudd Jibril Fall donc Jibril bi fof le Bril jugé parce que boo seetloo Jibril donc il y a J et Bril donc bi may def bi ma nekkee xale dafa ma am ñu won doon woowee am ñu ma doon woowee Jibi am ñu ma doon Bril donc quand j'étais artiste donc fallait me choisir benn nom d'artiste ma xol no ñu may ben ban mës gën neex donc Bril bi gëna a ak man ma jël ko def ko sama nom artiste muy muy euh, Bril voilà donc fight Fo, euh, c'était un groupe de rap boo xam ne fa laa au début donc dire Bril Fo, c'est comme nga ne bokk bu seen kumpa wala nga nongo bu dara ji. en fight for fight for ok voilà donc en fait euh, fight bi c'est c'est dafa am concept bu mu am quoi moo tax dindiwuma ko sama tour parce que non lay démé parce que fight bi dama japp né la vie est un combat man lepp lu ma def sama aduna fight la dama gëm sama bopp ci lepp gëm né ma wara a sama dundu et puis cap. en ah, fight mooy lan ko. fight c'est c'est combattre c'est le verbe combattre en anglais quoi fight to fight donc la vie est un combat moo tax ma jël euh, le 4 la qu'on voit toujours moi les 4 éléments de l'univers visible safara c'est la vie donc je dis que la vie est un combat donc dans mon nom il y a la vie et le combat loolu mooy Bril Fight Fo quoi. ok parce que ñu bëri comprendre lu ñu woon c'est exact. Euh, c'est quoi exactement donc tey à travers ta réponse. gars yi bëri am ñoo xam dañu am problème pour wax Fight Fo mais dégg lu ne ay Bril Fig Bril Fig Bril lu mais voilà je leur dis tout simplement nañuy def Bril kese parce que xam naa si kanam tuuti sax Bril kese lay nekk bu neex yàlla parce que mooy gën a yomb a wax quoi. Alors, tu as parlé de ce groupe de rap. Euh, ça fait combien de temps que tu es ici, Ouais, Gembi, c'est parce que nous, on a commencé à l'école. Donc, j'étais en vers 2004-2005. Nous avons une école euh, euh, à Tcharoy, c'est Mdiawar Tu Face à base, fan, là Tcharoy, Tcharoy. Voilà, Magdalene, nous avons salué de passage. Donc, on était à Tcharoy, avec un groupe d'amis. Nous créons un groupe de rap, comme tout le monde, tu vois. Avec évoluer au début, il faut que rap, mu dem ba nekk lu sérieux ñun man fu ma freestyle nice donc pourquoi pas avancer donc bi avancer affaire bi concours concours comme hip hop discover et tout donc ñu après squad studio Gaston tu vois après par la suite affaire bi dem ñu bac la faculté des sciences et techniques ñu dem ba ci biir gars bi ne may génn sama premier CD ma tuddee sama bopp Braille mais comme que groupe laa nekkoon te ñëpp bàyyi nañ ma ne combat bi kooku ñu commencé le woon je vais pas enlever le fight for. genre benn reconnaissance la quoi à travers ce groupe bi nga amoon. très bien reconnaissance la à travers ñoom ma tudd Braille fight for continuer combat bi ba ma génne. sa euh, premier CD bi moo nekkoon ban CD. rappéritif donc il y avait purement du rap pour woon gars yi que Bril mën rap am technique am skills comme rappeur yi fi nekk au single le voilà. non c'était c'était un une mixtape. mixtape mixtape de 14 titres avec la participation de beaucoup de jeunes talents comme Arlo Brick. mais si mixtape bi ban son moo gën si on si mixtape bob. Wa mixtape on euh, son bit ci si siiw mu ngi tuddoon euh, Zonglerie ma defoon ko Gaston. rap la woon. Ah, rap le one voilà voilà après ma ma jóge si boobu 2014 ma génnee benen mixtape tuddee ko Analysique Analysique mo amone dof si yow son buñ ñu sang sànq maa ak Mami Patra donc andena ci won ak ay Ombre Zayan Popose Boxu Sen Kumpa y avait que du rap donc ñep ñi nga xam ne wax Braille Fight for rap et tout ça donc j'ai sorti après ma jëndee Confirmation donc ça veut dire génne na ay ay plus de 80 sons peut-être ay rap parce que bu nekkul samay projet sax ay featuring la après par la suite man comme je je suis pas comme les autres rappeurs parce que yalla dafa def avant may dugg ci rap dama nekkoon di jang musique et tout ça ma dem ba am connaissance ma ci am en même temps ma maîtriser MAO musique assistée par ordinateur ma nek technicien en son gérer un label de production autour de classique musique donc ça veut dire ci Bril Fight Fo amna rappeur amna chanteur parce que fuma woyé woyee ñu ne neex na tamit technicien en son na beatmaker donc loolu dama ko wara won nit ñi loolu mo waral sama dernièrement donc mu xaw poser parce que def naa plus de quatre-vingts sons. donc pause ok xaar ñu pause conversation bi tout direct parce que a mon crédit bu bëri dafa bëgg wax ak yow Allô Allô? allo oui. waaw soxna si do. tudd. man ami classique là tudd. ami classique fan de dëkk. Liberté 6. ok ami y a en direct ak Cabril. Boude, dee mën ngay béegee yokkal ci sa tour bi classique. classique. <laughs> Yeah. ah Abdoulaye kontaan naa wax dëgg yàlla. merci beaucoup maa la gën a kontaan Ami. sama doomu bàyyi nga faal nga sant mën nga li ngay def. dëgg la waaye faal yàlla maam làmp faal. faal moom fu baax rek fa lay ne. bu ñu la dégloo dañuy kontaan parce que dooñu mos a rusloo wax dëgg yàlla. dëgg la merci beaucoup. sister ñu lay ñu ngi lay laa ko xam yàlla na ko yàlla defal. amiin yaa rabbi amiin. waaw ci kaw ci kanam rek bu ragal. amiin amiin waaye amiin yaa xam à jamais wax dëgg yàlla. loolu moom daf may neex quoi te incha allah gars yi moom dinañ gën a kontaan parce que lii di ñëw moo gën a nice li jot a jàll. ñu ngi koy xaar avec plaisir. incha allah incha allah merci beaucoup. incha allah ok. merci bonne continuation. ok thank you. Merci. Merci à Ami, bien sûr. Mention spéciale à elle. Euh, donc, Bril, nous continuons rapidement parce que direct, nous euh, pas Bril. Nous continuons rapidement et puis après, dans 3 minutes, nous disons le direct au 88 628 99 90. Alors, Banga Baye Rabi. Euh, non, pas, Baye, pas Baye. Hein, donc, euh, donc, Baye. Genre, donc, pas Baye parce que demain. dama ci lu bëri donc du coup je me suis dit que comme comme man dama mon lu bëri mën rap te depuis toujours j'ai sorti 3 CD répétitif analyse confirmation te ci rap ñi nga xam ne ñoo ngi dégg 3 CD yooyu yëpp rap la ñi nga xam ne ñoo ngi dégg rap bi yëpp def naa sama mission ci rap bi amatuma dara lu may prouvé ci rap bi Sénégal kenn sañul taxaw na analyser confirmation ak ban ak ak donc après je me suis dit naa samay preuve ci rap bi quoi te am na leen loo mën yoo xam ne peut-être rappeurs yu bëri mënuñu ko donc war naa mën a wane loolu donc par la suite la commencé génne ay son te bon li ngay dégg nii yëpp Bril way way way 700 way kese laa génneegum. 700 ba nga commencé way ban année la ba nga bàyyi analyse bi conf euh, confirmation bi ak euh, bien sûr répétitif bi trois yooyu. voilà loolu 2017 euh, la commencé génne ay son way. 2017 bi bii b mais ñu ngi 2018 grand. waaw 2017 2018 voilà un an. un an bi la commencé génne ay son way. ok donc son yi def tournant bi yëpp nga xam te ne moo koy génne moom ay millions de vues sur YouTube yëpp moy son way bu mujjee génne. léegi kon yow mun la wax ben affaire euh, sans te vexer quoi. Ah, dis-moi euh, yow kon euh, rap bi nga don def doxul. <laughs> parce que rap bobu siwul woon rap bobu xamuñ la won tay 2017 nga génnee wéy Sénégal ñëpp xañ xam la Afrique xam la le monde entier xam la nga si def ay tournée européenne tournée d'Afrique. kon ça veut dire que 2014 ba 2017 copain nekk won ci dara. wa léegi yow kon lan ngay wax gaay yi may wax bëril baye way bi nga demaat di rap mais kooku kooku dafay perte réseau booy boobu noonu am na benn gaañ bu woote léegi kooku man pour man day perte réseau loo xamante ne def nga ko ñaata année munoo si munoo si fayeeku tey loo xamante ne un an euh, am nga si gàlle un an am nga si oto un an am nga si visa ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi lay woo Europe fu nekk mais copain dafa mel ni tey rek man ma doon fenn foo xamante ne euh, mm. benn rajo boo xamante ne euh, kenn xam moo fa et tout pendant dix ans nekk naa fa mënu ma fexe progresser ah Euh, deuxième année bi ma dem beneen rajo bu bees tu vois. Hmm. ma commencé fële di de gauche di de droite. après ñu ne dellul fa nga nekkoon après ñu ne ma dellul dellul dellul rajo boobu nga nekkoon. dafa mel ni tey en espace d'un an euh, à travers la TFM on a fait Bercy on a fait euh, Hip Hop Galsen à Paris. et taï grâce à la TFM aujourd'hui hmm. qui nous a apporté un soutien bien sûr à 99%. vingt dix neuf pour c'est vrai donc tey mënuma concevoir ben auditeur waa ma pii fois, waay doo delluwaat ce premier radio boobu nous nga nekkoon. <laughs> dama ko naan copain xanaa yow bëggoo ma évoluer bëggoo ma avancer. noonu la mel quoi noonu la mel des fois je me ah, doon naa ko wax dëgg fa yàlla mais sax am ay problème pour gars yi teg yi ci rajo yi te pourtant li ma doon def amul dara lu ko daax ci Sénégal mais après je me suis mooy tracé yoon yi man naa lii ba sonn def ko ba sonn. est-ce que gëm nañ carrément rap dur bi hardcore bi. Laye Pokora nee na euh, série Pod et bi moo ko siiwal non série série Pod et Marichou bi man maa si wal xam nga lu tax imaginez Pod et Marichou nga génne son yi ci biril def yëpp xam nga premier Marichou ma def générique bi ma def son sonore yi ma def lépp donc premier Marichou participé nañ lu bari ci man man maay Bril Fire Foussem sam participé na lu bari ci série premier Marichou 50 50 wala 99 ñuy wax loolu dañu comprendre wul quoi après wallaay Pogora des pertes réseau day pertes réseau quoi parce que sama sama talent mom yob ci premier Marichou tay jii bo jëloon ben artiste n'importe quel artiste nga jël ko yob ko fofu non du def limay def parce que imaginez un Bril Fire foofu may composition bi man ma koy bind samay parole bopp enregistré ko wéki sama bop paré jox len ko ne tek len té te nekkul way yi kese

Euh, ñi nga xam ne may liggéey ñoom Pod Marichou dégg ko mu neex leen ma envoyé ko sama benn cousin bu nekk ci kii ñoo ngi may dégg parce que ñoo ngi déglu émission bi ma envoyé ko son bi son bi neexoon ñu teg ko ci benn épisode donc forcé wu xam nga lu neex tey dafa mel ne ceeb bu neex wala gel bu rafet comprendre nga wala lu neex daal kenn du ko forcé kenn gars dañ koy ñëw consommer ko Pod Marichou bu ñu doon son bi teg ko ci film bi fekk neexul nit ñi ñoo leen di critiqué. mais ñu si 30 secondes sama live boobu ngay wax. ci yow rek laa dof dafa leer baby yaay sama life yaay wétali sama dundu baby je peux t'appeler ma vie nekk ak yow forever loolooy sama envie love you I love you baby I love you I love you I love you I love you baby I love you I love you yeah ok boobu moo nekkoon sama live. moo nekkoon sama live ok son bi nga génnee ko waa et Marichou wala bëgg ko si série bi. parce que car macha allah bëri na ay artistes. Mm-hmm. Euh, rappeur mbalaxmaan wala ñi def kabo ñu bàyyi ñoo ñëpp tànn la si yow. Euh, dugal ko si série bi série bi euh, di accom son bi di accompagner série bi. Mm-hmm. ñoom ñaan ñëpp ñu affaire bi def buzz. tey wax Marichou sans pour autant. dugal si dugal Bril pour man benn la quoi c'est en fait famille quoi donc tout le monde qui dit que le projet Marissou, My Buzz, tout ça, ils ne comprennent pas que euh, c'est un travail, un travail très dur qu'on a fait en famille, en équipe, pour quaffaire idem quoi. Donc, nous avons dit que nous dem nous filmé, nous imaginer, nous générique avant tout, son film commence nous nous du Fight for the après nous avons image que nous nous avons sens tu vois dina ben benn parce que kon nga apporter un plus si série bi quoi lo xamante yenen série amuñ ko won yow dang ko am parce que tay si say ay son sax euh, da ngay gis si biir série bi ben Marichou euh, lu muy dund carrément ce son bi di refléter ak mom lu muy dund te même bu dul sax ben bu action par exemple ben image bo xam action la wala xeex bu amé yow yaa ngi dégg film mais amna ben son bo xam moy tax ngay dund action bi amna son bu lay tiital reug rëng dëgg ngay xam ne action am na bu lu triste amee yaa ngi gis maa ngi joué ay clavier ma ngi joué ay violon ma ngi joué affaire yo xam te affaire mo lay dugal ci biir film bi quoi nekul sax sama way na jël sama way te ko à part mais les je parle les autres sons les euh, bruitages yi may def générique yi may def gars nañu bàyyi xel ci affaire yooyu dañu fogné ne dañ ko télécharger wala fen lañ ko jël man ma koy défar donc imaginel couper loolu nga tek vite ki image yi kese nga xol loy am non da ngay am lén donc tay Bril Fight Foo ak Marodi TV ak premier et Marichou famille la te gars yi nañ gis lu gëna a parce que ñu ngi wajal saison 3 bi affaire yu gën a. comme saison 3 Pod et Marichou day koy waajal affaire yu gën a. gën a affaire bi 1 2 la jeex na pare na. du jeex du jeex est ce que duñu ay set waaye xam nga luy dox kenn du ko dagg. <laughs> kon Eva nëbb na ma boppam ah. kon gars yi dañuy am na lu ñuy waajal. non luy dox kenn du ko dagg luy dox kenn du ko dagg non jàppal dina dem ba ay 5 ans ah, incha allah. parce dem la quoi. alors euh, Bril fan lañ la mën a situer Bril le rappeur euh, Bril le chanteur euh, Bril le Cabo Verde Bril le big maker yow fan lañ lay situer Bril. non il faut dire Bril l'artiste polyvalent parce que man foo foo ma woo ma dem fa tey ba ma indiloon ay rappeurs tegal leen fii nga tegal ñu bit après di nga xam di nga gis carrément. non gars yi moom nee nañ mënoo rap sincèrement gars yi moom nee nañ mënoo rap nee nañ na nga toog si chanson bi rek quoi lan nga leen di tontu waaw. non ñi koy wax dañu perdre réseau quoi dañu réseau parce que pour wax naa leen ne Bril mënul rap mooy màkka amul kaaba. kon taala taala taala mu ngi déglu taala moom moom message mu ne puis sincèrement defal tout pour booy bu mu rap rek parce que mënul rap taala la tudd léegi man dama bëggoon ñu fen loo ko quoi nga may benn 30 secondes freestyle. waaw amul benn problème tegal bit. non amul bit amul bit benn freestyle ñu xool. ok the last fight of fight for moo dellu si waat ki fi Dakar moo ñëw di teg lu si waat freestyle ba nga woo sa rappeur ne ko tàngoo. indil ma seetu ndax ma jàkkaarloog samay naataango wutal junni maçon dama toj diikay ba Tamba ñiy bàkku wax leen nañu toogi newuñ ci ban Tamba bekkaay Mbay bëre wuñu nga ñu donte buuse woo ñu mën lii bëri wuñu ba sama baat dee dugg aljana dekki waat ñëpp barde doo déglu ma de suppale bu laat la jale li nga fi teg mut indi ci tegale indi ah sëgg la tegale maa ngi dem di rap di waaj gi gis benn freestyle di laaj Mr P damay improviser muy neex ah, tim benn livre rap ba mel ne ku ivre yoruma benn montre foo ko jete montre de last fare dafay rap ay masque di wadd every day every day nanga ma xoolee lay wadd sama rap dafa raar ne ndelu lay wadd every day every time yaa ngi gis ni ma koy jaaralee kaa ñuy rap fii ba suba man nga bu la ko jaaralee gis naa Sénégalais dugg Sénégalais yow booru 5 heures dugg 5 sol numéro 4 bril fight foo sama tur am na kat kaay ñu raak kaay fi ñu xeex everyday gis nga maa nigga nii lay demee maa ngi yore dëme dama dëme mun naa ba dëme everyday may talk di freestyle di improvising nga foog ne ay texte laay liir ay yor nene, ne sa rappeur laay soppi ay liir li def léegi laa ko créer mun naa fomp tableau feesal ko ak créer gis nga nii lay demee dama leen griller dugal ci griller fire di briller everyday guy yi naan ma briller. what's up what's up ok donc as l'air, na alors chez les rappeurs tu as 1, 2, 1, un 2, cinq fan ngay situer ce tu es le numéro 2, le numéro 3, 5 euh, chiffres là, lay jox un cinq fan ngay situer ce bopp yow tey bi kon 2, un 2, Bon, 2, un après en fait pour man Sénégal man 2, maa fi nekk rappeur ñee un rabuñu non copain li nga wax je suis le seul rappeur au Sénégal quand numéro un bi ngay jox sa bob. non man kese maa rab ñeneen ñi à part ça je fais la concurrence avec personne parce que man kese là. ok alors côté chanson euh, tey car macha allah sa baat na. Euh, après Rabbi, bi euh, yaa ngi des chants. est-ce que euh, carrément tu as dit au revoir tu as dit bye bye au rap. non jamais jamais en fait un bril fire, il faut jàppee comme benn maître James quoi wala wala ben Black M wala ben artiste boo xam day rap di way en même temps quoi donc day am ay beat yoo rap là, tu sentir donc dama ciy rap.

après le rap woy bi comme ça après auditeur yi dugg ma laaj leen rap bi wala woy bi ban ngeen gën a sentir 30 <laughs> secondes ñu demaat defal lu la neex. ok xam naa ni maa la tooñ moo tax dama lay baalu tey loo wax damay nangu bu la neexee sax na nga aalu dellu si naa te fokk ma am soori su ma la tooñee sama bopp lay gaañam soori li ma dal tey moo ko

tu t'inspires d'où euh, bon, Boudé, Boudé, oui, je m'inspire de, de, ou bien rap, ça, je m'inspire de ce que je vis, les mecs d'une de l'or, les mecs sama life et tout ça. Voilà, l'autre direct quoi, man, je, je trise pas sama son. Mais là, mon tard, le plus oui, ni ti d'un bop, notamment les jeunes filles. T'as portable gel bo dem, euh, amga et son ou brille fight faux. Euh, tu es beaucoup plus euh, scotché aux jeunes filles ou quoi C'est quoi le secret de Bril Parce que l'homme guéné côté chanson, allez, digène, beaucoup quoi. Ouais, ça c'est sûr. Même sur YouTube, sur YouTube, je me signale chaque jour que 70% sont fans de digène. 70%, donc 30% est que c'est C'est quoi le secret exactement C'est la voix de Bril. Euh, c'est quoi C'est les textes qui sont touchants, qui sont frappants. parce que, parce que en fait, man, le ligne de voir, le ligne de faire d'ara, le ligne de voir naturellement quoi, de mon de mon quoi. Par exemple, une fille, qui a trahi donc tout le temps day wax def nga ma lu ma géntul woon dul meuna xam luma dul meuna gem gëm ma ko waxoon dara gënul kayf fu ma la tegoon sóoruma lii bettu nga ma xam nga yow li nga ma def. yow dañ la trahir yow par exemple. bien sûr amul kenn pire yow mës nañ la trahir. <laughs> kon dañ la mës trahir motax tax nga génne sombre. everybody lañu trahir. parce que mënoo dund ba yenn âge yi fekk sa dund amul kenn ko nekkaloon ngeen am ay projet yéen ñaar après mu xey mu def leneen quoi mu xey mu gis leneen tu vois après mu dem yow trahison ko koy jappé quoi parce que amul ngeen loon waxoon ba paré tu vois euh, voilà ñep lañ mës a trahir donc man su may bind sama dama koy bind par rapport à moi am na keneen ku ma mosoon nekkal ko xamé ne nañu projet et tout ça mu mu trahir ma donc li wax dama ko doon ressentir su ma ko ci son bi après dinaa laal ay sentiments yu bëri parce que am na ñoo xam ne loolu la sentir donc il faut pas chercher de A à Z de midi à 14h waxal li nga xamantene biñ la bi mu la dalé lool nga wax tu vois li ma don li ma don jéem a acapella léegi benn son bu génnagul la jappaguma sax taxi moy balma moy li ma don acapella ci way légui voilà dina génn bientôt genre pour wax gars yi que ni euh, même benn gars boo xam dafa dem tooñ benn gel par exemple nga nekk ak benn gel après seytaane to euh, seytaane dugg si yow nga gis benn gel nekk ak moom ci benn soirée wala dara après mu gis leen après moom lu ko naqar yi mu dem toog yéen ñaar déggoon teewu leen soit mu bloqué la amatu. tu vois et tout ça donc euh, nga wara def ben son pour que mu dellu si waat et tout donc j'ai fait un son qui s'appelle Balma qui vient bientôt qui viendra bientôt na gaay gars xaar. donc Balma voilà. ok li nga xamné li nga xamné limay wax mom moy li nga xam ñep mom lañuy dem di waxi après quoi. alors 2017 nga ñu wax euh, nga génnee son yu neex yi et tout ñu ngi ci 2018 euh, son yi yóbbu na la fune def nga ay régions yu bari def nga sax extérieur. dëgg la n'est-ce pas Euh... tey à quand l'album ou bien à quand le mixtape côté chanson parce que côté rap y a et tout est-ce que tu as parlé parce que ay single lañ singles jot a mosal gars yi nga tasaare Sénégal. nga tasaare Afrique tasaare. sept single sept singles. sept single <laughs> nga def fait buzz en espace euh, d'un an. Euh, tey quand euh, la Bril n'a a gagné album. l'album bi ça sortir en 2018 Inch'Allah. 2018 bi moom du ma ko génte génnewu album bi parce que imagine album bu génnul sax problème day am parce que voilà il y a d'autres projets yu gëna a gande sax que album bu may préparer quoi donc les projets nekkul dañ koy liggéey rek parce que duñ ko wax quoi buñ ko wax dañ koy liggéey en silence après bu genné gaay xam mais le projet de l'album, mom inshallah album bi année bi gaay yi nañ si jot album mo ngi tudd suba y a déjà la participation de Abdou Djité album bi mu ngi tudd naka suba suba gars dégg leen loolu ah émission PNG ngeen ko yëgee ah suba suba la tudd moy tomorrow donc juste pour wax gars yi que ni damay wax lepp li

tu vois Abdou Djiri qu'on on a fait un son on parle pas d'amour tu vois euh ngi son Viviane voilà bobo on va. le gars ay malax maa nga may wax de. ouais parce que j'ai fait ay chanteur là invité sur album bi. ay un rappeur si ce album. parce que sama sama yenn album invité un rappeur tu vois dans analyse bi dama invité jamono non il y avait les deux meilleurs rappeurs au Sénégal il y avait Popo de Writer il y avait Boks Sen Kumpo dans analyse invité invité na len Confirmation invité na Cannabis tu vois euh, son premier CD invité na toute la nouvelle génération donc tu vois ay rappeurs kese laa invité donc. Sénégal rap dafa am ñaari musique tu vois amna musique dominante ak musique mo ma def mi rap donc mais légui maa ngi way way bi dafa ma tijjal ay porte man ma xamanté ak mais kon way bi mo gëna fay rap bi sincèrement quoi waaw ça c'est sûr ça c'est sûr parce que légui imaginez le yow yam nga gis nga ci fusco yi quoi des fois gis nga ma ci Fosco yi may def Fosco yi imaginel Fosco yi rek pour ñuy invité Bril Fight foo donc li ñuy li ñuy fay donc du ma ko sax wax ci radio quoi en fait li ñuy fay su ma doon liggéey ci su ma doon liggéey peut-être dina dinaa liggéey un mois ñu soog ma ko fay quoi te damay dem si benn Fosco jouer euh, même pas 15 minutes ñu fay ma lu ëpp loolu tu vois te benn jour dama doon jouer ay 7 concerts

toujours continuer de faire euh, par exemple la concurrence entre nous ku di wax sa morom mal dakaraab après ñuy def ñuy def ay ay ay son ku di wax ne man vampire laa dama lay dama lay ray et tout ça après ñu yem Sénégal à quoi ça sert nañu jéem a Lol, ma fa ne mooy neexal rabbi parce que gis benn Kanaba sa euh, tu vois ak tel artiste def benn ci euh, jaayante mag quoi wala gis benn Omzo ak Dip clashante loolu gars yi ñu ne day neexal game bi wala game au Sénégal au Sénégal mais je veux dire on doit avoir des projets Yo, xam te ne mooy rabbi rab ak feneen quoi ah, ok lol, fii rek lay yem quoi voilà pour man fii rek lay yem quoi parce que un par exemple ben nit boo xamante ne Gambie sax la nekk wala dëkk yu jege yi rek pour mu mën a consommer loolu noonu day metti mais pourquoi yow xoolal sunu musique ñun jël jëlal euh, wala yéen li ngeen di animé wala jëlal benn guerre bu la neex wala benn booy bu la neex nga jël portable am xam nga comme se dise la vérité loo fay fekk ay Davido nga fay fekk ay Wizkid wala ay Daju yooyu nga fay fekk pourquoi nga ko fay fekk parce que li ñuy def dafa universel dafa sentimental da nga koy mu neex parce que la musique c'est l'art de combiner les sons et les silences d' manière agréable à l'oreille du xeex bu doon xeex après gars yi dañu nekk ci ay mbër wala ñu dem nekk dem armée ji xeex yi wala bu doon affaire bandi bandi ñu dem dugg ci prison yi rey ay nit et tout ça mais du loolu affaire d'esprit esprit la affaire bu neex la c' est affaire bu mélodique la donc li ma ci gis moom mooy sama studio d'enregistrement ay clavier fa nek jaas nek nekk fa nek fa xeex amu fa jàmm ak salaam fa am donc na way lu neex jàmm ak salaam mu dugg ci xolu nit ñi après kenn ko xam déggul sax olof dugal sama sama vidéo yi comme sama live wala wala gang solo wala ba nga xol commentaire da ngay gis ño xam ne ay yenn dëkk lañ dëkk dañ lay wax euh, artiste bi xamuñ lu muy wax mais li muy way dafa neex. dafa neex ok sama dernière question avant mooy ubi direct bi euh, les réseaux sociaux. artiste bu nekk euh, euh, gis nañu tu vois influence bi ngay am si réseaux sociaux tey Bril euh, munoo yeewu benn matin gisoo sa photo gars yi dugal ko si réseaux sociaux yi munoo yeewu benn matinal gisoo ñu ñu ne la Bril moo def lii wala moo wax lii tu vois yow en tant que artiste. Tai euh, so gisee euh, réseaux sociaux yi ñuy wax euh, ça te fait quoi daf lay découragé lo da nga non vraiment sonn naa si liñ may wax li, non finalement boy est-ce que tu ma rap est-ce que par way dafa metti way yow naka ngay par exemple nga ñu ah Bril yow kat dégg da ngay génn ak Marichou bu nekk si pot et Marichou tu vois naka ngay quoi en fait bon pour rendre euh, ma si loolu sax quoi. balaa balaa ma koy fàtte quoi. Euh, euh, damay souvent gis si internet bi ñu ne Bril day génn ak Marichou bu si série Pod et Marichou. Ah, loolu du ma ci tontu loolu du ma ci tontu nañ ci tëb question bi. <laughs> c'est-à-dire dafa am wala amul. waaw ah, non du ma ci tontu loolu gars yi gars ñuy dute rek kii naan lii moo am wala lii moo am garaawul. kon amul loolu nga bëgg a wax. en tout leen wax am na wala amul. mais génn ak kon. non du leen ci wax dara loolu du ma ci wax. bien <laughs> mais dañuy gis say ay snap yow ngay nekk ak Marichou wala si sa ay euh, photo profil ngay def euh, image yu euh, Marichou léegi xam nga par exemple dafa am un sa wala c'est quoi benn benn benn image gars dañu naan un image bu benn image moo moo mun na wax par exemple lu bëri li nga nit war a wax quoi donc ça duma si wax peut-être lu ñoom après mën nañ amutal seen ay conclusion war a ñu wax ci mais du ma ci wax quoi. mais gars yi nee nañ yow amoo fitu wax ne yow da ngay génn ak Marichou parce que da yi noggatu la. xoolal fii di ma dugal <laughs> temps booy ñu laa doon def su ma bëggee xeex dama <laughs> laa xam <laughs>

man maa ci Abdou Djiri Seck parce que maa ko liggéeyal kon ñoom Viviane suñu son bi ñu def sama yeneen coaché non c'est-à-dire un technicien la euh, dañuy enregistré boo defee euh, benn affaire boo xam mën na gën a naaj mën naa wax lii mën na gën a naaj loolu du coaché liggéey bi la rek moo ko laaj donc peut-être loolu laa expliquer gars yi jël ko modifier ko wax leneen mais euh, man bu ma gisee gars yi publier si Facebook bi wala wala wax ay affaire ci man tout le temps ma gis am na sax ñoo xam dañ may dañ may saaga tout le temps YouTube rek wala Instagram damay jékki-jékki gis ku jaar fu ñaaw et tout ça mais affaire yi ay ree la may def dama koy assumer xam ne nit ku nekk ni nga toll noonu la sa coow di toll avant amoon na fu ma tolloon kenn daan moon waxal kenn daanul bind ci man mais léegi damay xëy dugg ci réseaux sociaux yi gis xola site people yëpp a ciy wax nee nañ sax man wax naa damay takk jabar. man yow ñu ne dangay takk jabar <laughs> ok léegi dëgg la dangay dinaa tax kan mooy mooy dund ci kaw suuf nekk góor du takk jabar loolu ça veut dire ce sont yoo xam ne bu ñu ko waxee même bu dee waxoo ko sax. mais jamono ji tu as une bien sûr bëgg sax bëgg diko sama. wala copine Bril. non dafa xess xees ok dafa ñool wala dafa euh, non sax en tout cas Tu <laughs> ci diggante bi la quoi. Euh, tubaab la wala africaine. ok mu ci milieu bi wala nekkul ci milieu bi. lan mooy showbiz bi quoi ah, man football ngay showbiz bi mu ci showbiz. showbiz non loolu moom du wax da intelligent quoi <laughs> jërëjëf euh, merci beaucoup euh, Bril euh, donc deuxième partie question bi auditeurs ñom ñoom poser ñu ngi déglu émission bi alors c'est parti ah damay jël auditeurs émission alors 88 628 99 90 képp ku PNG bien sûr Bril Fight for. nag aussi 88 628 99 90 c'est parti pour le live and direct your number 10. Never give up, Sénégal, tu coupe du monde. Nadine peut taper, nomme les Sénégal. Never give up, Sénégal, tu coupe du monde. Nadine peut taper, nomme les Sénégal. Wonderful, Sénégal, beautiful, Eh Viviane, ñu ngi lay xaar live en direct hein 88 le 628 99 90 Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bril ne bonsoir. Yeah, bonsoir sister. yee ça va bien man cool. Adja naka la. ça va Adja fan nga dëkk Adja. depuis Fatick. Fatick waa dëkk bu neex a ngi noonu waay Fatick Diofior. noo gisee prestation Bril Fight Fo si FM bi.

donc boo bëggee ma ñëw sa town rek gaawal nga dugg ci ligne bi léegi léegi léegi. mais Adja est-ce que am nga lu la neexul si Bril. ok lépp la neex quoi dara neexul. Ah ok c'est super. merci beaucoup merci à Adja Sounou, première auditrice bien sûr Fatik la 88 628 99 90 internet, ok donc à l'écoute de l'émission Binta avec sa maman bien sûr euh, maman Aram donc euh, tous les jeunes des parcelles Zasseni à l'écoute de l'émission le vendredi et le samedi on vous rappelle que PNG ils seront à 16 16h. ok Neko, bonsoir. bonsoir. oui bonsoir waaw Koul naka moom. sant yàlla bu baax. waaw waaw Badou la mooy woote. yaay jaajëf Badou ziar naa la. waaw dolli ziar nga. jaajëf waay. Badou moo ko fan nga fan nga ñuy wooye. waaw ah, juste juste juste damay revenir ci question bi la kii posé léegi. waaye muy. waaw juste boo boo ci mënee répondre mooy loolu. ndax ñu bëri ñu ngi xaar réponse boobu aussi. man <laughs> man question la. non Marichou Marichou digganteem ak Marichou. nee naa la Sénégal ñëpp fay xaar réponse bi. xam nga lu tax. ndax ndax apprécier nañ façon de communication li muy wax yëpp dégg nañ ko et puis bëgg nañ ko dañuy consommer li muy def aussi. waa baax na aussi tamit bu ñu la posé yenn question nga toog nga leeral comme man benn badu wala keneen amul possibilité jël téléphone am wala di la laaj yenn yi à travers la rajo. donc si la la. te loolu dara amu sax loolu vraiment dara amu si man mu ngi nii dama naan Eva c'est mon bédamo loolu dara amu si ah. rek gëmal yàlla la loolu laa ko bëgg wax dara amu si dara amu si. juste pour nga leeralal ñu rek. Ah, ndax ndax ndax bu fekkonte ne question yi ñu la posé yëpp da nga ko bañ ne doo si répondre ñu man wax. mais pas mal de questions yoo xam ne monsieur Pi posé na la ko nga répondre ko. Mhm. donc boobu boo ñëwee tëpp ne du ma si wax. daf ñuy xaw a jaaxal tuuti dëgg la dëgg la voilà c' est ça benn boobu conseil laa lay jox amul benn problème boo paree rek incha allah li nga wax sinon am na benn anniversaire boo xam ne dama bëgg nga souhaiter ma ko joyeux anniversaire ah. mooy kan la. elle se nomme Mama Diop. waaw naa ko wayal boobu xeetu door la wala. dinaa ko wayal en direct léegi léegi. déggu ma. ma ne ndax boobu xeetu door la. non elle est à l'écoute en tout cas avec Sami Fa et puis mooy loolu nga souhaiter di ko ñaanal lu mu bëgg moo xam yàlla defal ko ko. tey la fin sànq ba léegi maa ngi insister depuis début émission bi si la. kon après vidéo bi di nga mën a fayee quoi foofu après wala. fii bu ko fëtee noonu waaye. ah ok. waaye <laughs> yow man nga sax dama wax ak yow yow léegi taximaan nga. <laughs> xaw ma ko daan woon juutu la yow. <laughs> non victoire bi neexoon rek. waaw neexoon na neexoon na c'était cool vraiment. mais noo gisee son bu Bril génnee ak Viviane. non son bi dal na dal na gars yi apprécié nañ ko man. maa ngi koy seetaan ah. merci démb maa ngi koy seetaan YouTube bi mooy loolu son bi daal dal na en tout cas. jaajëf Badou. te comme ni mu wax na li envoyé na ko Lions yi bon da leen gën a yokk jom quoi da leen gën a motiver pour seen prochaine match dimanche incha allah. ok man. waaw di di souhaiter euh, naa Niang aussi sama doom jooju happy birthday ak Fatima Dabo aussi lundi prochain la boobu dinañ am temps pour revenir incha allah. ok man. mais mais son euh, euh, Maman Diop mon koy deug hein wa Maman Diop bin nañ ko ah, Maman Diop. anniversaire Ok, merci. Merci à Badou. Hein. Il a participé à l'émission Faites comme Badou, faites comme Adja au 88 628 99 90. L'invité de jumeaux PNJ se nomme Pril Fightful. Neko, bonsoir. Yeah, bonsoir. Oui, allô? Aïda, waouh. Euh, c'était juste pour wax léegi da ngay dépendre léegi si Jeannot Jeannot heure bu osé wax copine am en direct rek yow léegi mën nga wax sa bopp dégg nga. kuy Jeannot. J. <laughs> ah J. waaw heure bu osé wax copine am en direct rek yow wax sa bopp dégg nga. waxal sa copine en direct ma xool. ah kon yow da nga woote pour jëlal part Bril quoi. man Bril ko moom laa jëlal part. wallaahi wallaahi dëgg la Bril dépendre la ci moom rek dégg nga. oui xam nga rek. maa ngi ca gannaaw Jeannot boo xeeree waxal ok, merci. Oh, ok. J'ai une taille, je suis mon égénégie xanaa pour une première dans l'histoire si di nga am fit comme ça. chaque jour saa ñu ma laajee damay tontu ne c'est ma machine. waaw ban machine machine da nga mën a ak moom. non mais si moo may jox ma lekk di ma jox ma naan di ma jox may fayeeku te du ma laaj dépense. Ah, kon man je peux dire c'est ma musique ah c'est ma musique parce que ma musique me donne tout tu vois. lépp <laughs> tu vois la wala Bril yor na iPhone X Bril yor na yor na oto yor na leen ak leen quoi tu vois non mais gars ils sont pas sérieux quoi Bril ne ko bonsoir. oui bonsoir. allo allo waaw. bonsoir. allo waaw bonsoir.

jar jar, am naa sama jar jar, dawai da waaye de si album bi la bok ah kon kon xamna du bi ngay wax yow wéyal ñu ci tuuti comme ça mom mu xam ban la way ci tuuti rek. ah wetal wetal nga ma wetal nga ma. jar na fepp fo da nek wax lu ne yeggatuma la. duma nangune ne gestu ba gis la sama wet sama àdduna tukki na tàgguwuma bàyyi ma may weet julli naa di ñaanat yàlla mu delloosi la donte benn bis la ye merci beaucoup ah Ndeye ñu wéyal la nii en direct Merci, Merci beaucoup, merci. Ok. Voilà donc, merci beaucoup. Hein. Via le net la page Facebook, on remercie Mariam Faye, Nene Bril Mongfi Toch, mamcha Classique, Nene Bril le Silugariwa, Aïcha Djahate, bisous à toi, ça fait plaisir. donc toujours euh, les textes hein, via les réseaux sociaux donc euh, nous nuyu tamit cartel sec

da war a jàppee sa bopp waykat. sa waa ji noo tudd ak foo dëkk. bàyyil ma <laughs> ñu ngi lay déglu. yaa maa ngi lay déglu bro. waaw la wala conseil sa bopp waykat. ma considéré sama bopp waykat. si waay. bokk na bokk na ci man de parce que man lépp laay def quoi en fait. non rab. mënuma rab.

non dama bëgg a defal naa xaaral moo wax la damay déglu moo wax la dafa neex yow am na par exemple way baa la gën a neex nee nga man mënu ma rab way laa mën mais nee naa la même bu dee dafa am benn nit boo xam ne dafa jàpp ne man mën naa rab te mu ngi ma defal ma son wu rab ko def ndax kooku loolu la quoi ndax ndax dinaa dinaa ko def ndax plaisir ñu may déglu quoi. te tey xam nga defal naa ma wax la benn affaire si man. mooy mm-hmm. mooy même way bi may def nii sax mënuma ko non way ah, moom mënu non mënu ma ko naa way moom mënu ko may dégg ma wax la wante tànk teguwoo si bit da may dégg ma wax la rek teguwoo da may dégg ma expliqué la bro xam nga dañuy waxtaan da may woo dañuy waxtaan waaw dëgg la mais man ma lañu invité bu ma neex su ma ne du ma répondre do dañuy coupé dañuy coupé ligne bi mu jàll ci kanam la waaw daf lay tontu léegi da nga koy bàyyi mu tontu la après nga wax sa beneen wax su ma nangu la déglu du ma la déglu bro dama ne la man par exemple li may def yëpp yëpp yëpp yëpp parfait ou ma ci quoi c'est un combat mm-hmm. parce que nit la quoi parce que l'être humain n'est pas parfait tu vois tay rabbi may def amna na ñoo xam neexu même way may def amna na ñoo xam neexu chaque jour tay suba rek mo ci mo ci mujj jot naa benn commentaire Instagram ben gars na bàyyil way xamo dara donc nit ku nekk lay les couleurs ne se dispute pas ku nekk tay ni ngay ni ngay ni ngay concevoir ben affaire kenn du ko concevoir noonu tey am ñoo chaque jour dañ may wo téléphone dañ may saraxu pour ma génne son rap. parce que ñom lolu moo gënal ci man Ta ma la affaire du benn du ñaar du mm-hmm. ñett du ñeent ay junni junni nit lañ partout dans le monde ñoo xam te neñ sama rap moon gënal tu vois tey mm-hmm. ñooñu noonu mënuma bàyyi rap ndax ñoom so man su ma doon su woon loolu banaa rab bu yàgg parce que rab bi jox ma li ma koy jox yaa ngi fil donc tey way bi mu ma gën a jox li ma koy jox maa ngi way nag maa ngi rab te du ma si bàyyi benn parce que fu ne am naa fa public waaw ah, waaw dégg moom maa yow fooy gën a sant sa bopp sa way bi wala sa si ñaar yëpp bro waaw yow yow ak ah, sama <laughs> gis-gis nu ma ko mën a waxee yow comment dirais-je euh, rab bi da nga ciy forcé. dama si. da nga ciy forcé ndax soo sànq ji mu may ma benn acapella. Ah. maa ngi tegu la benn li nga ciy tegu nii di nga xam ne non. ndeysaan. sincèrement parler li ngay wax ah. noonu. teguwul tant que. waaw dugg luñ ci biir ah. te way bi. dëgg la bàyyee. dëgg la léegi léegi léegi demal nga déglu ji a damay bàyyi léegi xam nga ne par exemple yow xamoo sama rab quoi peut-être déglu woon demal nga déglu ji Fight foofu featuring Buxu seen kumpa soo mënul woon rab du def ak featuring ak Buxu demal nga déglu ji Fight foofu featuring Gaston demal nga déglu ji Fight foofu feat Papa Seda nga seetaan ma ci Hip Hop Awards nga def seetaan ma ci Galsen Awards yi nga xool kan mooy Bril Fight foofu ba nga ma yàgg a def ay ay classique freestyle et tout ça nga dem seetaani ko après nga ñëw nga a nga xool demal si net bi laa dëkk de. waaw dama des sa waa ji par exemple par exemple dama des déglu ji Bril ak Bux nga ñëwaat. Ah. nga déglu Bril ak Topp sa. sa waa yow nee nga rab léegi maag Bux soo bu ñu def nu mu tudd. man ak Topp sa soo ñu def nu mu tudd.

tey demal nga déglu ci hip hop awards sayfa euh, yi wala nga dem seeti Galsen Galsen sayfa bi nga xam ne ñu ko doon def SN sayfa nga dem seetaan ma man ak Balvada ak Sanzala nga dem seetaan ma ak ñeneen ak ñeneen. mais kii est ce yi moo ko tamit. moo tax mu mais que rapportu keneen la mais mais loolu moo demee noonu. foofee am na ñii di bëgg. ñii di siisu waaw. ñii di bëgg mais en tout cas am na si ñoo xam ne Sénégal la yoo xam ne sama rap moo gënal te même bu dekkee am na ñoo xam ne neexu leen naa ko def ndax ñoom am na ñoo xam ne sama way moo gënal te am na ñoo xam ne li may way neexu leen mais naa ko def ngir ngir ñu ko bëgg donc tout le temps man xooluma ñi nga xam ne bëgguñu li may def damay xool ñu ko bëgg te ñooñ même bu fekkee lu minime lañ li may def dama ci fier ndax ñoom lu ñu ko bëgg. dama ci ok donc réseaux sociaux yi si lañ bokk tamit waa Italie waa États-Unis waa Angleterre mun ngeen ñu woo donc euh, am na ku ñuy woowee depuis la Mauritanie euh, ñu paas la ko nga nuyu ko nuyu ko. hello hello naka la ziar naa la allo allo allo Mauritanie moo sori nag moo tax ligne bi di yéex a ñëw. <laughs> allo allo waa Mauritanie def allo. allo allo. waaw allo. def ziar naa la ça va. oui allo oui. allo waa ça Ouais, merci beaucoup, sister. Ça va bien. Ouais, ça va bien, Nicole. Allô? Non, tout doux, non, tout doux. Oui, allô? Allô, ah, malé déglo. Allô? Allô? Ouais, non, les non, tout doux, la bella. Ouais, direct à Fight 4. billah réseau bi mooy daw right dañ la doon wax na ne yaa ngi en direct ak Bril Fight Fo nii moom ngay waxal nii actuellement waaw nuyu ñu sa yaay jërëjëf di remercier donc euh, wa Mauritanie euh, mention spéciale à elle on a du mal à l'entendre hein. donc j'espère que si kanam euh, dina ñëwaat mu ngi déglu ak yaayam bien sûr connecté depuis Mauritanie di ko remercier néna Bella la tudd Bella bu Mauritanie alors ñi nga xamantene ñu ngi extérieur via WhatsApp mu ngeen wo si 77 244 22 22 mais ñi nga xamantene seulement extérieur lañ nek ngeen woté via WhatsApp donc képp ku am parent bu nek Italie Espagne Angleterre France nga bëgg dugg ci émission bi via WhatsApp bien sûr le 77 244 22 22 wa extérieur nak lañ wax hein donc waxuñu gars nga xamante ñu ngi fii extérieur amna na allo bonsoir jël extérieur après ñu jël ordinaire. wax la ki Nantes lay wootee France. yeah Nantes. eh bien ça va. eh ça va bien sister. c'est la dëkk. eh maa cool maa ngi sant yàlla mais ni nga def nice na trop. Hein? merci beaucoup merci beaucoup sister depuis Nantes depuis la France. Eh, là, ça fait plaisir kontaan naa bu baax Ouais. Yeah. <laughs> mais soxna si soirée, son brille, moi le gars, on Je man Gangsta Love <laughs> Gangsta Love man, alors, da ngay <laughs> ah, de. parce qu'avec affaire Je ku c'est parce que ngay quoi. la li nga koy dund en fait. am dëgg la dëgg la merci beaucoup kontaan naa si. que bëgg nga ñu jox la ko comme ami invisible parce que balaa émission bi di jeex damay laajte kan moo bëgg brille comme ami invisible. mais ami rek la wax ne avec grand A quoi pas ne ko waa brille yow. en dehors de kii son yi nag ma neex. ji ji ma sama jaam yow ji dégg nga. merci waa Sénégal ñu ngi xaar xaar ñu jël waa Sénégal.

yeah, pocho naka war waaye sant nii rek. jaajëf Pothio fan nga ñuy exactement. Panam Panam. Panam exactement ci fan ya ngi pari. waaw ah, pari. ngi pari all right. pari, la dëgg yeah that's right that's right maa ngi lay bëggee bro. yeah Biré. yeah naka war waaye pocho la soo Morgan nag soo ne ko ne Pothio dina xam na bu baax. ah yeah dëgg la la Mr Morgan maa ngi koy bëggee bu baax tamit du passage si sinon nice. waaw alhamdulillah, maa ngi sant yàlla. mais naka job bi nag. waaw ñoo ngi ci kawam rek nekk ci kawam d'habitude di jéem pousse kañ. waaw mais noonu la noonu la baax na. la la. si. merci bro. waaw mais yow kañ nga defaat teew. allah bientôt rek maa ngi waaj affaire quoi yàggatul. waaw dara. le monde. non coow merci bro. mais mel ne PG. yaa Pocho co. mais gars yi kontaan nañ si woote bi de Pocho. mais dafa mel yaa ngi supporté Lions de maa ngi gis PP bi nii maillot Sénégal bi nii. pour cent kay. da koy di waajal dimanche bi. mais dimanche bi mais duumeen duumeen dàq nañ ko si groupe de. duumeen dafa yaa la booy boobu. waaw nee mu dul ma ko kon comme ça ñu GP la ko. merci beaucoup Pocho jaajëf Pocho donc di ko remercier wa Sénégal ñu ngi xaar ci 88 628 99 90 Sénégal bonsoir allo Sénégal allo donc nous vous wa Sénégal euh, dem nañ euh, di remercier 88 le 628 99 90 Au Sénégal ñu sommes extérieur via WhatsApp Nous ngeen ñu le 244 22 22 donc euh, di remercier Adja Badou Ndaye Papi Bella Awa Pocho alors faites comme ces auditeurs 88 le 628 99 90 euh au Sénégal bonsoir. yeah bonsoir. bonsoir. ça va sister. ça va je tout Toucha. Toucha Nagala.

bul xool bëgg-bëgg nit ñi dangay xool sa bëgg-bëgg yeew dëgg la dëgg la parce que ñi la gën a bañ la gën a mën a tàgg dëgg la euh, dangay góorgóorlu ci mm-hmm. li nekk sa dëgg la dëgg la te ngeen nit ñi mm-hmm. doo am li bëgg de loolu dafa leer soo jumeaux yi mm-hmm. topp di kenn ñu ngi nii ci liggéey seen liggéey di dem fu nekk macha allah mais ku nekk sa bëgg-bëgg nga mën a def dëgg la sista yee maa ngi samay maa ngi samay bëgg-bëgg quoi li ma gën a bëgg ci àdduna musique la te maa ngi koy def quoi donc li may def yëpp musique la donc sama bëgg-bëgg. mais bul topp musique bul topp musique ñi sama ginnaaw ci musique bi daal di allah bu neex ñi sama ginnaaw yëpp ñoo ngi sa musique bi ñoom tamit. ok. dëgg la merci beaucoup kontaan naa ci conseil bi. ciao ciao. merci.

wala wax parce Sénégal mo mooy dëkk bu mel noonu quoi Sénégal mo bëri ñu soxor Sénégal mo bëri ño xam ne gis kenn kuy dem wax def ben affaire tu vois ñu duñ sax duñ sax jéem xol par exemple am nit bo koy wax dara mun ko waxé d'une manière positive mu ko répondre le amna ay commentaires xamni do def Facebook dama lay man maa lay jël inbox saltel ko après ma expliquer la non non bu dé lu positif la man dama lay jël inbox ma expliquer la waxtan ci ak yow et tout ça tu vois des fois nit ne ma brille mais pourquoi Ça sooy gisee guñ ko iTunes et tout ça tu vois ma xam li commentaire la bu positif quoi tu vois ma ñëw répondre mais boo duggee na ma ay yow xamoo dara mënoo damay xam ne kii dafa jug pour wax lu. lu saltal ok alors bonsoir. allo. et allo. Biri ça va. ça va bien. Euh, yow wéyal. ma way ma way dirab merci beaucoup. waaw boo ci def day dem. incha ok nit ñi moom bu leen dañu la dëgg la. parce que dafa am ñoo xam ne dañu ñëw pour yàq. waaw loolu am na. am ñoo xam ne dañu ñëw pour def loo xam ne mooy loolu. la dëgg la. yaa ma gën a xam wooyee rabal yow loo def tay dem incha allahu rabbi bu neexee mais wéetal nga ma wéetal nga ma bi kontaan naa ci trop trop trop wéetal nga ma waaw maa ngi koy may képp koo xam ne da nga am nit bu la sori wala nit boo ñàkk merci beaucoup sister merci merci beaucoup si oui eh, kontaan naa ci billet bi dégg nga merci beaucoup yeah on est ensemble yow comment encore c'est Kumba bébé Kumba kontaan naa trop trop on est ensemble yow Kumba Allez, bisous, bisous, Kumba, ça fait plaisir. Elle se nomme tout simplement Bébé Kumba. Ça se passe toujours au 88 128 99 90. Ils sont nombreux, hein, les textos, via la page Facebook euh, KIN, GFM, King FM et le GNP via le 77 244 22 22. On va lire euh, les textos, bien sûr, euh, avant de se dire bye bye. Bril Neko, allô? Yeah, allô, Marley oh, Allô, oui. Non, Nembi, Doggantaan. sànq dafa am benn bojo bojo xaw ma lu mu doon dugg di wax loo xam ne maîtriser wu ko. Mhm. il fallait que ma woote pour tontu ko. Mhm. Bril Fight foo mënul rab mooy maaka amul kaaba loolu Bril warutoo see tontu quoi. <laughs> c'est-à-dire gis nga gars bàyyi leen ñuy wax seen commentaire yu négatif. yee incha allah album bi album bi dina ñëw album bi dina ñëw tontu lu bari bu neexee. nan tam nan tam ay ñoom ñi ay Robson ñooñu ñu jàngal leen rab mais nekkatul Bril moo leen wax lan mooy rab. dëgg la. Bril lu mu def ci biir rap def ko biir analyse. te tamit di fàttali que ne sama album Rappétitif bokk na moo jëloon mille révélation hip hop Galsen ci hip hop Jolof. en 2012 effectivement. Ah, analyse analyse awards yëpp la bokk. analyse awards yëpp la bokk. tu vois confirmation awards yëpp la bokk quoi. effectivement benn son bu tudd. te amul waay amul waay confirmation rek. dafa tënk lan mooy rap. dëgg la rabatu léegi nag gars yi wax lu leen neex biri rabatu day way na leen. kon yow nga bëgg wax papi day perte raison. waaye kii kenn xamul dafa dof kenn xamul lan la. <laughs> mais moom nee na nee na Bril mun na wéy de nee na Bril mun na wéy mais munul rap loolu la wax. mais loolu mooy waxu dof Bril munul rap mooy waxu dof. ok man personnellement billah wallah wa taalaahi rabu Bril laa gën a mën a déglu ko wayu Bril. dëgg la si bëri nag ah, ñu si bëri. chaque jour damay dem studio di ko kaat naa ko Bril mu ne ah, ma ne ko man maa ngi ci bi na dëgër. gars yi ñu taxawee fii naan ay kon Bril mun a rap c'est daa am ñu nekk ci suuf di leen xam bu ñun xam ne ñun demee quoi. waaye man soo munul rap sax garaawul. non nag gars yi bàyyi commentaire yu yi ñuy def tout cas non li am nekkul mën naa wala mënuma loolu c' est un mot ma def ko en fait par exemple nit bu ma bàyyi lii wala parce que yow wéroo quoi man lu ma sentir laay def ma rek wala bëggu ko demal sa yoon bul déglu ko bëggul quoi tu vois nga bàyyi ñu bëgg ñu ko quoi. ay bojo bojo lañ dañuy xaar Dream Fight for 2018 suba ñëw. incha yàlla album bang ngi ñew mais inshallah dina Bril complet li wax rek moy Bril complet Bril Bril chanteur Bril rappeur Bril beatmaker quoi te loolu nonu. ci baye ben rek incomplet quoi il faut que may def lépp. yeah di ko encore une fois donc euh, man je dis que ku nekk son opinion donc sur les 100 personnes 100 personnes, ok copain je suis d'accord ah, c'est clair 100 personnes ne PNJ euh, vous êtes au top.

yee maa ngi ziar bu baax bro. jaajëf waay. waaye li ngay def dafa dafa neex. merci beaucoup bro. waaw dañ koy géttee quoi en fait. dëgg la dëgg la waaye ni ma ci li muy def quoi bañ déglu gars yi. waaw ah, incha allah gars yi mu leen déglu moom gars yi moom boo solee sa mbubb ne la waroo koon solee nii. <laughs> dafa neex dëgg la. waaw xam nga li nga bëgg. Mm-hmm. et jublu ci quoi. incha allah. Dóor waar rek mu am solo. dëgg la dëgg la. li ci des yëpp ay détails la. Mm-hmm. c'est la voix de. comment encore. Babacar Sène la. Babacar. Babacar kontaan nañ ci appel bi. waaye gis nga saa yi moom dëgg-dëgg neexul bu neexul lu muy def da ko mën ba pare dafa neex quoi en fait. merci beaucoup. mu góorgóorlu allez merci beaucoup. ok merci. allez merci mon frère il se nomme tout simplement Babacar euh, diko de remercier def leen ni 628 99 90 on est à quelques minutes de la fin de l'émission c'est toujours possible de parler bien sûr avec l'artiste l'invité des jumeaux PNJ euh, Bril Fight Fo n'est-ce pas diko euh, di encore une fois Bril Nego bonsoir. bonsoir. oui hello. Allô, bro Nakawa. nu mu demee eh? sant yàlla bu baax a baax c'est lay pokora yee ya, lay jeex naa la naka mu grand alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax a baax mais job bi mu ngi eh, yee ya, ya, merci beaucoup bro xame nga ma yee xame naa la xame naa tournée bi lay pakora mais yaa ngi may grillé de nee nga damay pété réseau eh, non gars yi ñooy mbalak nii xam kan nga ñun ay kan lañ <laughs> <laughs> mais yow sama gaynde rappeur nga donc yow dama lay apprécier forcément. dëgg la dëgg la bro merci beaucoup. Euh, non mais am na ñu ne dama war a bàyyi rab moom. Eh, bul bàyyi non bàyyi rab dafa loo sentir quoi. Eh, am na ñu naan dama war a bàyyi waaye tamit quoi. <laughs> game bi noonu la defal li ngay fil rek quoi. <laughs> right incha allah foo rebe noonu lay demee. grillé dundal li ngay gis. bu neexee yàlla bu neexee yàlla. waaw mais aussi il faut nga nangul. tamit ne. Pod mhm. et Marichou série bi ci la ñu bëri découvrir. waaw ça c'est vrai loolu moom kenn mënu ko bañ bro. waaw man commentaire boobu rek laa doon def mais c'était pas benn wax boo xamante ne pour te déstabiliser le tout. Ah, ok comme xam naa mais am naa tey am na ñoo xamante ne par exemple ñoom dañu xool par exemple talent bi artiste bi am mais dañuy bëgg rek ne fi bi moo tax quoi te duñu xool que ni am na talent bu nekk si ginnaaw création boobu yëpp quoi. te bu création bi amul am na talent xoolal. nga def. mooy son bu récent bi mu jégee na ni. Mhm. mais bi nga waayee foofu dama daanu. dëgg la dëgg la. donc xam nga yow maa ngi fil li ngay def. dëggantaan bro. yee donc man du ma la disturb aussi dama lay encouragé. yee dafa leer dëgg la merci beaucoup pour ça. Ah, fi nga ko teg foofu la et képp ku fi joxe tamit euh, benn xalaatam rek. Mhm. nga leer dafa leer. dafa leer loolu mooy live bi quoi. dafa leer live moom loolu la quoi donc à chaque fois dañuy jàng ci li nit yi wax à chaque fois mais man commentaire yi may gën a jël ci sama live moom mooy commentaire yu positif yi parce que am na ay nit yoo xamante ne dañuy ñëw wax ma seen comme ni nga wax nii léegi rek. wax nga ma fi lu leer lu positif ma xam ne jëlee ci leçon xam ne lii lu positif la quoi tey nit lu ñëw rek day am na ma koy jëlee quoi da am noo koy waxee rek. après dama lay. waaw tontoon ni nga ko waxee rek. waaw mais xawoon naa la mere nag parce que am na un jour ma ma message la waaye whatsapp nag ku ma ci mbere rek sa waay nag xam nga. xam nga lu waral loolu xam nga lu waral loolu. non tegal nga ma tegal nga ma. non xam nga lu waral tegal naa la ko donc comme comprendre nga ko maa ngi jégal. bu baax dañ la comprendre parce que ñun aussi ñoo yéen si ñoo nekk dañ comprendre. ko xam te ne envoyé na ma message si whatsapp gisuma ko wala tontuwuma ko du sama coobare maa ngi si jégalu bu wér a wér a wér a wér. yeah yeah Fatima Sylla moom mu ngi lay déggee depuis Kër Mbaye Fall. RSA ah, aussi depuis Gambie maa ngi koy rëbëgee bu baax a baax. waaw elle est à l'écoute mu ngi li ngay def lu baax. dëgg la dëgg la. ay bureau yu tudd jaamaan depuis Guédiawaye ñoom ñëpp ñu ngi kiffee quoi. voilà maa ngi bëgg naa bu baax a baax ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee. leen ñu ngi ñu ngi wéet album bi bu baax. incha allah incha allah bu neexee yàlla album bu ñëwee gars dañ ci gis différence dañ ci gis. lu mais doo ko invité le effectivement le 30 da ngay ñëw tubaab jalaaw ñu tasaare foofu. amul benn problème incha allah mu parce que waa tubaab jalaaw yi aussi dañ lay kife ah. yee dëgg la damay teew fépp fu ma Sénégalais di di bégee rek bëgg naa fa teew bu Je di remercier donc euh, très important artistes fans parce qu'ils ne répondent pas aux messages ou bien ils ne prennent pas les appels tay euh, PNG personnes yi définitivement di parce que PNG par exemple un portable est-ce que yow ça ça t'arrive rek après nga question après bro ah waaw di la remercier si ticket bi nga ma mayoon. merci beaucoup. kii yow kooku yow lay waxal. kii yow la woon benn jour da nga woote woon tànn benn numéro moom nga tànnoon ko. Ah, <laughs> dëgg la dëgg la. waaw mais tam lay waxal merci bro merci. waaw mais nag li nga def rafet na trop mais. Uh-huh. dama bëggoon ñu waxtaan trente secondes quoi bu fekkee mën a nekk. waaw loolu ça dépend ci bii quoi ak temps émission bi. waaw mais xam nga sànq booy bi dafa dugg wax lu muy wax. dëgg la. mais da nga nar a xam benn affaire gis nga rap Sénégal. dëgg la rapper yi dañu fiir mhm. envers les mbalax quoi maanaam boo nekkee ya da ngay rap mhm. da nga nar a concentré si rap bi boy bi loolu la bëggoon ya, wax sànq non déggee léegi bu fekkee da nga nekk woykat da ngay concentré ci woy non en fait way bi way way ak mbalax sa rien voir quoi loolu ça dire ça dafa mel ne comprendre dafa mel ne tey nga ne Bomaar la kon mbalax maan la parce que da doon way dafa mel ne nga ne Alpha blondi mbalax maan la parce que mo ngi way wala nga ne Michael Jackson mbalax maan la parce que day way ça veut dire sénégalais pour ñoom way rek égal mbalax te loolu ok léegi ma jox la benn kii ma jox la benn exemple. waaye dis-moi. xam nga tey ku ne Fata mënul woy biir Sénégal waxul dëgg. Fata mënul Fata day rap waaw. Fata waaw dafal daan rek mën na rap boo gisee mën na la xam naa ne rappeur la boo gisee mën na la woy. waaw. comme li nga def sànq da nga woy at ay mbalaxmaan. dama woy. n'est-ce pas. dama woy ak da nga ay mbalaxmaan maanaam fitiri na at mbalaxmaan. dama dama woy ak ay rappeur ak benn mbalaxmaan. muy Viviane te Viviane daf ñu fekk ci afrobeat. Mhm. waaw Iya, wa da branch duñ ay man quoi ya da branch ya ya box bu sen kumpa ya bay babu bala Vivian kese mo ci mana? ok legi yow hmm xam nga tay ya fata dafa def fitun at ay mbalaxmaan wa deug rappeur yi diko clash nako ay xamoo dara ay dugg na fi gën na fi mais boo xoolee xam na ne fata il est complet mais loolu du yoon loolu ñu wax dañu comprendre bro wax la benn affaire déglu ma explique benn affaire man je suis musicien dama demone jàngi ko xam ci lu bari bari, yag ci def ci ay at di liggéey façon musicien bu nek ci aduna bi du Sénégal kese lay liggéeyal ay musicien dama yor sama label de production di liggéey mo ko ben affaire tay toutes les ah, toutes les genres musicales sont juste des routes qui mhm. convergent en un point ñun ñëpp ñu bok fi ñu jëm par exemple tay mhm. rappeur rappeur yu bari dañuy éviter mbalaxmaan sen son pour mbalaxmaan dañu mhm. wayal len si wala dara quoi

noonu la ko war ñëpp waaw léegi non dafa ndànk yow mënoo ñu wax nuñ koy gisee xam nga man de la le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest nga ne ma yow ko gisee noonu ñëpp waruñu ko gisee noonu la ko war a gisee ok léegi yow léegi li nga wax yeah dafa am benn base bu nga ko teg waaw dama ko teg ci musique léegi am waaw léegi xaaral rek xam nga yow tey mm-hmm. euh, kuy déglu rap Sénégal dëggantaan boo xamee ne rab Sénégal dëggantaan xat koor la woon n'est-ce pas rab Sénégal dëggantaan xat koor la woon logiciel bi dem léegi gars yi def ko genre afrobeat léegi yow booy xam nga ne booy léegi nii boo xoolee instrumental yu yàgg yi entre mooy jamono tubaab la woon ay jamono yooyu la booy doon déglu léegi boo xoolee yooyu dañ ko dépassé ñu ngi ci yeneen léegi booy ñoom xamuñu nu mu demee léegi yow boo leen naree indil lii te ñoom leen lañ doon séntu xam nga foofu day am loo xamante ne booy duñ ko comprendre sax yaa lu mu la wax. ah mën na déglu mën na déglu. eh ma lay déglu bro. ndax muy comprendre bu baax lu mu ko bëgg a wax rek. non comprendre ma nag sincèrement quoi maa ngi dégg. comprendre oo li mu la <laughs> <laughs> comprendre ma ko. doo mu ko a comprendre. <laughs> daa compliqué ci man trop. gënoon compliqué parce que xamal la moo garaaw. ñun en général dañuy déglu rab am na ñoo xamante ne duñu déglu rab zug la ñuy déglu am ñoo xam ne duñu déglu zug leneen la ñuy déglu mbalax léegi yow rappeur bi boo laalee ci zug bi laal ci mbalax bi te kee nga xam ne zug rek lay déglu dalay xaw a mere ci benn côté parce que moom lee la xam yaa ngi comprendre léegi non comprendre mu ba léegi bro. léegi yow du est-ce que doo ko invité Saint-Paul nii Grand Yoff nga xam ne ñëwee nga tegal ko. après nga ñëw toog nga tegal ma quoi parce que loolu compliqué quoi li xaj li nga wax ni xajul ci trente secondes. yow xam yow saako booy bi woote yaa ngi laal yaa ngi laal Chrysler bi xam nga koom. <laughs> parce que booy bi muy wax kenn mënul déglu yow parce que yaa ngi laal Chrysler bi ba beneen rajo di feeñ ci suuf. Euh, xam yow si ko rajo bi nga toog bu nit ki di wax <laughs> fulam ngay laal chrysler bi bàyyi loolu loolu baaxul. <laughs> bu reetaan xam nga bu baax la lu lay wax parce que booy bi <laughs> li muy wax ñu bëri ñu ko comprendre parce que yaa ngi laal chrysler bi. mais gars yi kontaan nañ si woote bi de gars yi ñoo ko doon waxtaanee ñoom Badou quoi. Eh, wax ma lool loolu yëpp dama la ne. xam la mooy problème bi gis nga auditeur bu wootee da nga koy jox cër bu moom. Odeur wax na ba génn ni bu yàgg yàgg na. non non yow bi dafa woote yàggul bu si yàgg mu ngay laal Christophe bàyyi loolu loolu baaxul. non auditeur moo dem séddoo bi moo jeex quoi séddoo bi. non waxuma la coupé bi de waxuma la coupé bi de. man la loolu. bi auditeur bi di wax ak moom. waa ji di ko déglu. waaw. yaa ngi laal Christophe bi. non saa yi dafa dem de crédit moo jeex quoi. saa waay dafa dem yow toogal foofu di nekk kii yow da nga ne yow ñu paas ñoo ñoo fi nekk yow. mais léegi lan ngay wax Badou nee na mooy anniversaire lan nga koy souhaital. waaw yàlla baax na yàlla na ko yàlla may lii mu bëgg. waaw. lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. ok nuyu ñu Pambaalo waaye président. waaw dafal ndànk ma wax bo pare. ah pare ko. yoo xam nga émission piège yi li mu war a neexatul nit ki day woo nga koy corxe corxe bu mu la newoon ji nii ji na la léegi léegi léegi nga bàyyi ma fi garaawul. ok a tout seulement tout from euh, Mermoz Moukazia de koy ça se passe toujours 88 128 99 90 les textos n'auraient pas de tomber via le net la page Facebook euh, KINGFM. ok alors on va prendre les deux derniers auditeurs de l'émission au 88 628 99 90 bien sûr pour clôturer en, beauté euh, l'émission de ce soir allez les deux derniers auditeurs Alors, bonsoir. aywa baal ñu waaye biril baal ko rek biril la. allo eh, biril na ma fay sama crédit. non bul wax dara dama la koy fay incha allah ça bien bro sister. waaw maa ngi nii sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. neex na. Eh, merci beaucoup sister merci. waaw di ngeen fay ma sama crédit nag. Eh, bu ma déglu toon dinaa leen mer. yi dañu la fay sa crédit incha allah. te ku la message whatsapp na nga ko. noo tudd di ko euh, la Caaroy. Ndeye Caaroy. kenn nday Bril dina la carte bu 1000 francs si kanam. waxal waay. eh jàppal incha ok ok t'inquiète pas nekk len ci merci beaucoup. ok merci euh, elle est très gentille elle s'appelle Ndai euh, Nena na crédit bi euh, Bril jeexal donc di ko remercier Ndaye alors toujours le 88 628 99 90 si un auditeur en ligne on dit bonsoir allô. allô. allô. allô sister. <laughs> oui <laughs> ça va. ça va bien nakala. la. a ngi cool. Wa alhamdulillah ma sant yàlla. ok dama la doon rek pour féliciter la. merci beaucoup contente merci si sa woote. pour travail bi nga à accomplir voilà jusque là. Ouais, contente na. Bril nu mu tudd c'est si tout tudd. eh déglu ma yow xuma ak yow Bril lay waxal s'il te plaît. <laughs> Wa ñu ngi lay déglu tout tudd. <laughs> Bilkiis. a bu bëggoon wax sa tur quoi. <laughs> garaawul ma bàyyi baal naa baal naa baal naa man la Eva Jalal moo bëggoon wax loo rek. ah yee Eva la Eva kontaan naa ci yow. allez Eva ani Marichou. Marichou mi ngi fi. Mari. Ah, dañu mu wax ak Brila. Ah. eh rek leen na yow yarul. <laughs> wala nekkoo leen. non ñoom yaruwuñu en tout cas félicitations. merci beaucoup merci beaucoup ça fait plaisir.

dëgg la. kan ngay toogal pii. pii son ban son pii ban son la pardon s'il te plaît Bril laay waxal ak pi waxuma ak yow. <laughs> bàyyi ma. parce que Bril dañ mës dem ben dañ mës dem mur et puis ay ñu tok ay minuit yooyu nga mu ne ma puis am déglu son bi et puis toute la toute la nuit hein, toute la soirée mu déglu ma son bi j'ai j'ai j'ai trop aimé j'ai trop kiffé donc depuis lors nak ça yu ñu togué nak ça yu ñu teg euh, sound Bril boobu la may ñëkk may quoi. dëgg la dëgg affaire bu nice way ça fait plaisir. Mhm. En tout cas, tu es super bien. Reste comme tu es. Ne change pas. Comment mon dunya. Yeah, dégueulasse, dégueulasse. Lu baax de mhm. jël ko. Mhm. Lu bon moom nga tegee ko Dëggantaan. Dëgg la. léegi yéen waa et yéen euh, buzz wala moom moo buzz. waaw lu xew. buzz. ok léegi dañ fa am benn question boo xamante ne dañ ko laaj Bril ba léegi bëgguñu tontul te gars yi nee nañ yow yaay aw xaw ma yow yaay ñaareel quoi entre yow ak Marichou comme que yéen ñaar yéen a ngi ànd xamoo doo leen nëbbante dara. Mhm. léegi gars yi dañ doon laajte ndax paa bi moo koy coaché wala coaché wu ko. yow tontul ba pare yow yow wax ñu ba pare yow Jano yow kan ngay génnal non affaire Aida bul def affaire quoi waxu wax ni mom lañuy inviter invité moy inviter ñëpp wax waxal ba musique am machine la ma sa musique bi <laughs> ah, ok Eva merci. <laughs> D'accord, merci. mais mais quel est le son qui te fera plaisir un son de qui te fera plaisir. c'est quel son son gangster love bi rek gangster ah mbaaru da ngeen di yow tamit di xuloo di ko dund nii dañuy xeex <laughs> loolu du ñàkk mais noonu lañ bëggante right loolu ah ok kon yow gangster love ngay dund wala <laughs> au revoir bisous. allez merci beaucoup Eva donc c'était Eva de la série Potier et Marichou mention spéciale à elle. faites comme Eva au 88 128 99 90. alors brille le choix entre Eva entre Marichou et Betty sont les trois bien sûr actrices de de la série ñi nga fan sa préférence si en regardant la série la série bon. voilà amul non qui la faral wala mais sincèrement quoi soo koy seetaan kan ngay gën faral. non mënu ma si wax quoi parce que en fait nous sommes gars lañ quoi. ah non non affaire gars soo ko jëlee tegee ne la ci série bi. non dafa laaj su waxé Marie Chou directement après mu ña Eva ak euh, Betty mun ñu ma mere parce que ñu ngi may déglu su waxé waxee Marie Chou ak Eva mun ñu ma mere su waxé Eva la même chose mun nañ ma mere donc fa ñu ñëpp rek. <laughs> ok c'est super on va prendre l'auditeur en ligne Il y a quelqu'un en ligne ne ko bonsoir. allô allô bonsoir bonsoir allô. bonsoir Bril. bonsoir. <laughs> ay Birel Birel naa la Birel. billaay maa la raw. <laughs> maa ngi tudd Anta. Anta fidèle auditrice waa di la topp bu baax sax. dëgg la dëgg la merci beaucoup Sista kontaan maa ngi lay bëgg lu bëri. dëgg waa ami invisible boobu fii di wax ami ah da nga bëgg invisible quoi. ok ah, ah, kii de ami invisible mooy nii depuis Nantes sax envoyé na message léegi si page Facebook nee na j'ai une question pour mon ami invisible. Eh, yow kan moo la wax ne yow lañ koy jox. Ah, bon depuis Nantes mais nee na moom lu ko si jaaxal est-ce que dina ko tontu. c'est-à-dire que di nga ko tontu. Bril sa ami invisible nee na est-ce que su la envoyé message di nga ko tontu. incha allah bu ma ko gisee rek dinaa ko tontu man message mo tontu rek dama ko gisul. mais ñëpp laay tontu quoi saa yi bu ma gisee benn message rek mu leer ma ne gis naa ko dinaa ko tontu quoi seulement message yi ñooy. que xam nga ne sa benn fans bàyyi na la parce que tontu woo ko message wala woo na la jëluloo. waaw loolu day am parce que loolu boo ko defee rek mooy ñaari xam bi quoi parce que tey imagine benn Bril Fight foo day moom man. nekkul sama bopp kasse lay liggéeyal quoi damay liggéey ak ay yenn artiste te d'habitude su ma nekkee di liggéey damay faral di teg sama portable comme mode silencieux mais sama portable du déconnecté wu day am connexion 24 heures sur 24 légui di nga ma gis nga fokk ne ma ngi en ligne fek damay liggéey du ma ko gis légui su envoyé message fek ñu bari envoyé nañ ma message chaque jour mën naa recevoir plus de 5000 messages donc day wàcc ba suuf du ma ko gis mënu répondre ñëpp tu vois ñi nekk ci kaw laay laay répondre après ainsi de suite suma togué am temps may wacc di xol te yow léeg-léeg sa yaay da lay woo sax ne woo naa la journée bi yëpp jotoo la te yow imagine sa yaay di la woo donc décroché woo donc nekkul ne ay bëggoo répondre kon kon euh, fan su warul mere artiste am à cause de message wala appel a ko def quoi parce que mënoo xam ci yan condition la nekkoon bi nga woo quoi ça veut pas dire que daf ko gis bañ ko jël parce que nit yu bëri noonu lañ koy jàppee dañu foog ne yow ñu ngi lay woo yaa ngi koy gis mais yaa loolu du ma ko def. biiru démb ak biiru tey est-ce que am na lu lu lu ute lu changé est-ce que Sahari tout démb yi ñoom nga nekkal ba léegi sa gelu démb moom ngay jëndal ba léegi est-ce que am na lu changé caaf bi nga doon jënd est-ce que yaa ngi koy jënd ba léegi est-ce que y a un changement par rapport à biiru dem ak biiru tey. am na ay changement yu bëri ah changement yu bëri changement yi nag lu positif kese la quoi mais tey boo seetloo man bi ma commencé def musique en 2005 peut-être def rap ak sama groupe de rap donc ñima doon andal ba tay ma nga and ak ñom kenn ko xamante bima nekké di gënë sama premier CD rapparatif muy Brother mo ci doon japp mu nekkon sama manager di ci japp ba tay ji tay lañ gën xamanté xamante lañ gën nekk ma ak moom dañuy déggante presque 24 heures sur 24 ñima doon liggéeyal depuis analysique et tout ça ils sont là Mahmoud mo manager li toujours la maison gars yi dañ fiy nekk di japp pa Moussa le gars laa nekk ak man laaj kan la ma xam Pa Moussa Pa Moussa la bu may xam ay 2001 la wala 2 l'an 2000 te ba tey moo nekk ci staff bi di jàpp ci bagage et tout donc ça veut dire que. ñu mën a kab bu rouge mooy kan. kii sama chauffeur la quoi tu vois moom moom moo dàq dawal ci Sénégal. ah mooy mooy cascadeur bi ah ok kon région yi il faut ñu koy yóbbu de. voilà voilà région yi moo ñuy war a di yóbbu et tout ça. Mhm. donc am na ay ñeneen ak ñeen sax lu ñu mën a àndal parce que d'habitude gars yi fee day bëri dañu yóbbu benn oto. Mhm. donc na am ñeneen ak yenn chauffeurs yi yoo xam ne dañ dox si ñuy yóbbu et tout ça. voilà donc di wax changement yi positif kese la quoi bu dee côté euh, ay relations et tout ça avant j'étais plus si côté musique bi Escort Show et tout ça mais vu que affaire yaa ngi avancé te. bu dul Bril Fight foo Jibril Fall dafa am te dafa war a gérer vie wam dafa war a créer famille et tout ça mën naa ne. côté ah, Jibril nga tudd yow. Jibril waaw côté relation yi euh, Djibril légui la gëna nek ci lu lu quoi lu dëgër quoi. alors le président tout à l'heure seen seen euh, top fan club nous tout président. président mu tout Mame donc. Euh, voilà ndax ngeen ko tuddee Bril Family wala c'est quoi. non number one Bril. number one amna ay góor fofu wala. am na ay góor mais jigen ñi ñoo ëpp nag quoi xam man ay. bëggoon ben match football quoi. gars yi ñoo leen da football de sama gars <laughs> non ñoo leen da football fouf. ok. Euh, one number one euh, brille bien sûr euh, taille mais nak gars wax nañu affaire quoi tu vois vu que taille bi dafa entre brille rap brille way t'as mal neex lay def. man tout ça y a un son de l'album bo xamantene dama dama bientôt et tout ça donc gars mon may wa PNG ñu def ko. na nako dal s'appelle donc damay def ko Fight rap ak Fight way en même ok kon émission. c'est un son qui fait partie de l'album et tout ça voilà gars ko déglu presque mais la exclusivité Moussa da ngay def lu gaaw. ok pas Moussa alors euh, Bril euh, côté côté social euh, si lan ngay est-ce que côté social def ay ay pas un peu social. oui bien sûr bien sûr maa ngi def ay ay ay ay pas yu bëri ci côté boobu noonu parce que imaginel koo xam ne ay jeunes yu bëri ñoo lay topp tu vois tey am na ñu bëri ñoo xamante ne euh, sama ginnaaw la ñu nekk quoi lépp lu ma wax lañuy def lépp lu ma def fu ma jaar la ñuy jaar quoi donc du coup tout le temps maa ngi essayer di leen conscientiser di nekk ak ñoom koor gi récemment dama ànd ak ñoom dem organiser ay ndogu à Thiaroye dem joxe ay ndogu fi ma dëkk et tout ça te puis ñoo ngi wàcc ay leneen ak leneen ak leneen yaa am na ay fans club à partout ci région yi récemment laa dem euh, sama fans club number one bu nekk Thiès gisanteeg ñoom am ak ñoom ay projet donc je me dis tout le temps que les jeunes yi nga autour de Bril Fight Fo yëpp di liggéey ci côté Bril Fight Fo dama bëgg a def loolu entreprise mu nekk loo xam ne dañ ciy gis bopp après quoi. am na benn rappeur boo il est en prison en tant que artiste rappeur yan jéego euh, nga def ou bien yéen rappeurs yi ngeen def pour pour One ko vous êtes de tout cœur avec lui pour soutenir ko il s'appelle Ngaaka Blindé. Mm. voilà donc juste avant may dem France et tout il y avait. Euh, déggante nak ménageur Ngaaka Blindé maa moom ñuy waxtaan ci lu bari man defna naa yàgg soutenir affaire bi depuis le début donc ci réseaux sociaux yi partout di ko métti lu may métti la ba tey parce que lool man mënoon na ma dal parce que man j'avais ce projet là bu mu doon def man doon naa waaj def ben clip bo xamné ne lu mel non lay def quoi jël ay xaalis eh, di ko tasaare si piscine. dama jàppoon ne garaawul quoi dama jàppoon ne vidéo kese la quoi te dama ko naroon def tu vois donc ça veut li ko arrivé tey moon na ma arrivé moo man naroon naa ko def tey yàlla xam na ko ci rajo laa toog dama ko naroon def donc ça veut dire dama jàppoon ne garaawul et tout tey ñun ñëpp xam nañ ne tey donc tey nekk na lenn loo xamante tey jàng nañ si lu bëri te kenn yéenewu ko ko man bu ma sañoon tey tey tey day France seen kër te def naa ci manager pour donc fa dama dama dem bu euh, tribunal bu bu pikin bi ma dem lijjanti fa France ma France aussi staff et tout ça comme que le tout dem lijjanti ay. Euh, passer passer manager donc du coup ah ñi bëggoon ñu rassembler pour ci staff donc ils étaient pas rassemblés te ba tay jii ni ñun ñoo parce que duñu bëgg def mobilisation mu y a une forte euh, euh, mobilisation bu nek derrière le que classique musique du mais jahas la Lil Diagne muy ñi Jonas muy Mahmoud muy everybody mais comme rappeurs élection jotté ñu président dañuy tel ministre ñu gis réseaux sociaux est-ce que tu engouement bobu am tamit euh, carrément tous les rappeurs du Sénégal tu vois def marche vraiment s'il vous plaît est-ce que am entre vous les rappeurs man ngi ngi ngi ci message par rapport ak ngi ay surtout tu vois donc ngi ci combat tu vois chaque jour bu ñu nekkee studio ba xel ci man par exemple ñun en tout cas du matin dama nañ genn ci mbedd bi pour lolu dama koy def tu vois donc ça veut dire on est prêt ñun ñep dañu paré pour japp ci combat parce que suñu frère la quoi qu'on puisse dire xam nga tay amna ay débat yu indi ay musique bëgg a affaire yi mais affaire bi euh, pire affaire bi du dara da ngay dañuy ko fi la tey yaay artiste, artiste at fii lañ nekkoon quoi tu vois donc ñu xam ne li fii la quoi benn affaire la bu ndaw rek après dañ man sax wala keneen keneen bis kanamay tuut dañ koy bay dañuy am jabar dañuy am ay dom dañuy am ay leneen dañuy nekk si ay affaire quoi donc ñu xam ne musique c'est le que on est des frères du ñu ay concurrents nous ñu xeexuñu xulawuñu on est des frères dañu war a planté donc voilà man dama pare pour engager ou ci combat boobu non et tout que gars yi plus lu ñu pour def par rapport à cela je suis ouvert je suis là Ok, donc on va écouter le son juste après nag me poser les questions pour ce futur ami invisible. yeah parlons d'ami invisible Ça, gars on like ce Snapchat là la quoi. sama Snapchat euh, Bril euh, tiré du euh, moi tiré du bas après Fight fou, bu ok ok donc Bril on va écouter le son et puis juste après me poser la question. questions Hamantane, ce ce futur ami invisible bu lay déglu dina ko mën a xam si yow. je n'ai am de problème. n'est-ce pas. let's go. je vais ñu them. yaa si kaw a kaw a kaw yaa exclusivité sama album suba la tudd ñun la ñi teel a tàmbali soobu ci xare bi doon ñett musula yomb ñooy matt ci taal bi yàgg fer ñett ñett ñu bàyyi mu des benn elen da expo wi teg lu yéeme nekk laaj dëgg daaj te du expo war a libéré ñi jël seen xel yi soppi kasso maîtriser art bi wàcce Mozart Picasso yore xalima docteur bi ñu loo dul gaaw a xam teg lu leer ba ñu tëx sax ñoo nan la dañuy dégg waxam may ki mën ci rab bi dañu bëgg a yëg ni ku jum toog ci puuso jox la son yu am bi waa gem bi du ñeema baaso puuso yore rab ku raar comme photo bu Ablaye Wade am karaw du ma rawante ak yéen ak seen pol du la ñuy xool ku raw mën a raab mën a way teg ci mën a bind gën a aay yokk ci mu ne bu ne maa ngi feeñ ci film léegi fa ci biti di ko jaay bul ma comparé ak benn rappeur maa ngi ci beneen monde bokk ñu heure man la yàlla rab bi li président yi waxal sa de man la acteur foo ko dégg dootoo laajte kan la def lu leer te ku gisul ci wan la Coly Balaci Sound yi dëkk bi biram mën a waay lépp man la dégguma dégguma waxal real fight for yow ma nee ma real fight for man dégguma dégguma waxal fu ma déggee pit ay rim yu kaare ñooy di kat ma rab ba dëgg buum yi kaare bépp ñot di kat xamoo heure bi jot te nangu nga maa ngi koy excitant nopp yaa ngi tàkkamti ku li ngay ket moo excitant kat baar laa teg man di kat yëpp di ma waatee xamoon ngeen ne baar bi day yéeg bu ma ñëwaatee man sëriñ laa ci daara mu nuyoo ñëppay fay seen rappeur yore lu ma leen dara dinaa leen fay ñi nga gën a fil maa leen mën moo tax yaa ngi si su a sama bopp fees sa grim mel ne juuma la bi su ajuma next level dëgg a asiko nan la ndox la a maay messi rab bi ñëppay xaar sama son yi ne classico wane lu yéeme na jinne ci kuune kem taane xam nga a ci ay aane la rawe taane bis gën ne fi juune di fan rek di promo may MC Jacko wër te quatre lay rab fii ki leen mosal chrono du bi boo ko dégg dootoo laajte kan la def lu leer te du gisul kiwanya Koli balati saomi teke bipira mana wai Lekumanda, lekuma dekuma waha Real fight for Yao wema wema nema Real fight for Man dekuma dekuma waha Real fight for Nema real fight for Real fight for What's my name? Do you know my name? What's my name? Is there no my name? la mën teg ngeen i ma fayal li may teg di gën a leer bàyyi leen ñuy tëkkale jama ak ay xeer a bi ba foof man du ma li wax ma leen gën a dee leeram too fi ñi lay fi gën a man ma yeew ku ma gis ci chaîne dama génn télé tur bi foo ko dégg dootoo laajte kan la def lu leer te ku gisul du jug ci wan la polyvalent ci sound yi tëgg bi di rap mën a waay lépp man la déggu ma déggu ma waxal green fight for yow woowee ma woowee ma ne ma green fight for man déggu ma déggu ma waxal green fight for nee ma green fight for green fight for ana ñu neewoon Bril Flight 4 du raw mais aw sa aha gars yi perte réseau <laughs> ay le pas normal la gala lu ndaw kese la sooy man soo non xool yaa door a nag loo xamante ne man sentir naa sam bopp quoi non non sooy ay wóy yi nga doon wóy pour man loo wóoree ko moom oh, mais lii soow kaana la oh, te kaana day soxor meen day sadi <laughs> kii moo tax yenn gars way bi nga li ma tax ñu bëri naan ma bàyyil wooy bi dara bii moom bii moom da ko fi bàyyi xaw ma lu bees la xaw ma da ko fi bàyyi am na yéen yu gën a soxor lii man nekk ci album bi eh, gars yi leen wax gars lu ñu wax mais yow yow kon sànq waroon tontu da nga waroon wax ji tegal leen son bi rek non la moo tax après gars yi ma tegal leen son bi may leen son may leen ko ok sarax leen ko donc c'est super kon album bu bees yi yu baax yi ñoo na nar am yu daax yi ñoo ci am mais ok li euh, lancement euh, super euh, wax nga ñu tamit Pape Birahim li nga def ak moom featuring incha allah incha allah def ak featuring Viviane Abdou Omar Pène. ah bon ça c'est des grosses pointures de la musique sénégalaise. parce que tey tamit mooy loolu ñu si bëri maa ngi liggéey ak ñoom donc maa ngi composer ay musique pour ñoom du voilà mu nekk loo xamante ne tey euh, nekkul sax lu ñu forcer quoi affaire bi ñëw naturellement la quoi parce que voilà ku ci nekk sentir na lu may def li ñuy def lu may def ak là ku ci mel ne Abdou Djidé Seck ñoo ngi préparé benn album international boo actuellement on est à 23 sons te lépp composer. tu voit te euh, art Abdou Djité pour man légende la quoi Sénégal donc pour man liggéey moom rek tey voilà am na lu mu ma lu lu mu indi ci man quoi parce que tey ma am na ay temps si télé bi doon toog euh, doogu tout tànk laa woon tànku neen laa ndof génn ci mbedd mi dégg Abdou Djité di way xaw ma am sama doom bu jigéen voilà mu nekk ma dem tey ba nga xam te nit boobu noonu ma may composé ay tu vois donc mu nekk tey benn étape yu bëri yu ma def tey tëbu rek egg si foofu noonu voilà moo tax album bi featuring am yu bëri yu naturel la normal pas même chose quoi dafa dégg li may def euh, am déjà man sama sama vidéo yi day am ñoo xam ne Bril ak Pape Birahim dañ ay way mom tamit ñu wax mu grand bu positif affaire bi donc lool ni ko nit ñi di wax mom tamit na Studio mak mom ñu waxtaan mu nekk nit bu baax ñu forcé wuñ sa featuring dafa sax maam ñu wax groupe parce que tout le temps dafa may woon Bril am a affaire est-ce que duñ ko def tu vois mu nekk lu naturel quoi voilà. Pas besoin de passage par Fall du di ko remercier bu baax ah, donc jantal bro la alors Bril euh, dinañ la invité waat gars yi ñoo ngi validé son bi nee nañ tas Saré. gars yi nag nice message yaa ngi daw instant foog ma lire quelques textos après 677. 244 22 22 ak page Facebook bi tamit gars yi signé né alors euh, Bril euh, il faut que ñu inviter le benn jeudi parce que dafa am benn concept émission bu ñuy woyé mon incroyable ami invisible. kep kuy artiste dañ lay jox ci auditeur wala auditrice su PNG mu nekk sa xarit. donc di ngeen déggante par téléphone message wala appel mais amulen droit gisante tant que invité wuñ leen fi ngeen xamanté live and direct. par exemple dañuy teg Bril. jël euh, teg euh, trois yeneen deux personnes ngeen doon trois. Mm-hmm. ñu en face de vous ñu tànnal leen fii ñetti jigéen. mais mosoo leen gis mais dañu doon déggante téléphone. Mm-hmm. tey ñu ne la Bril euh, comme que Nancy awa bu Nantes mus na la woo moom mooy sa am ami mus na la wax ne dafa njool dafa xaw a xees ñetti gel yu xees a ngi nii selon toi qui est ton non dama koy xam man dama intelligent. <laughs> ok donc tay bëgg nañ xam yenn aspect yu ndaw ñom ñu ngi déglu ñom ñoom sa futur ami invisible yi. Euh, dañu bëggoon xam quelques aspects ci yow comme ça ñom ñu noté ko parce que bës bu leen indi fi dinañ leen poser question yoy waaw mooy man nitu jaamu laa quoi fu ñoo fekk damay kaf di foo di ree. Mhm. xam nga dama bëgg ay en fait lépp lu may reetaanloo dama ko bëgg quoi. su ma nekkee ak nit sax su may reetaanloo en fait laa koy gën a bëgg quoi parce que man bëgguma genre li ma gën a mën def problème xam mooy lan mooy nit bu sérieux koo xam ne du kaf du ree kooku problème la may def en fait man dama ouvert quoi dama bëgg nit buy kaf di foo damay tout le temps damay kaf foo reetaan ay mbalagante. free quoi vraiment free quoi. ok euh, yow nga ne sa tur dëgg naan la. Jibril Fall. Jibril Fall ok Jibril Fall lan mooy sa couleur préférée. Euh, man noir blanc noir ak blanc. noir blanc ah, je am na ñu naan du couleur a préféré quoi. ok lan mooy kan mooy artiste préféré wu Jibril. sama artiste préféré au Sénégal au Sénégal au Sénégal Fad Freddy je artiste préféré je l'écoute beaucoup quoi j'aime beaucoup ce qu'il fait. à travers le monde entier à part Fade. à travers le monde entier j'écoute vous euh, France de déglu. Euh, damay déglu ay euh, ay section d'assaut ñu fa nekk j'aime leur façon de rapper leur technique et tout ça donc dama mon déglu ay groupe mais mel ne Super Crew parce que ku xam Bril Fight foo xam ne sama rap ak rabu rappeurs yi nekk Sénégal xaw na différence parce que je suis trop technique am na sax ñu doon dañ am na ay temps sax gars dañu doon wax sa technique yi pour ñu mën la dégg voilà côté euh, États-Unis damay déglu ay damay déglu ay artistes yu bëri comme R&B comme rap damay déglu ay euh, Kendrick Lamar damay déglu ay Drake damay déglu ay Eminem damay déglu lépp képp kuy def musique bu neex ok euh, quels sont les deux pays de rêve de Bril ñaari y a deux vraiment découvrir pays euh, pays de rêve. deux pays de rêve de Bril. donc en tout cas je ne rêve sax rêve la ma ak ma genre euh, ma ànd ak ben soit temps Dubaï wala Miami. Dubaï wala Miami. <laughs> ok kan comment on ma ne suure booy fii bul sabote booy am na ñoo xamante ne ñoo ngi dundee yaakaar ah ok ok ah, baal ma ko bul sabote booy bul yàqal le bi ok kon bëggoo fa yóbbu Marichou Dubaï le plat préféré de Bril euh, mbaxalu Saloum mbaxalu Saloum mbaxalu Saloum ok euh, quel est le sport préféré de Bril football football ton équipe euh, Barça Barça ban Barça ngay joué yow ban man man attaquant laa joué ba ba ñuy fubal. waaye <laughs> ok dama garaaw dama garaaw. alors quel a été euh, aujourd'hui le meilleur moment vécu de Bril euh, tay ñu ngi def émission bi ñepp ngi déglu mais tay à travers émission PNG bëgg nañ xam ban moment mo gënoon force live bi nga dund bo xamante tu as trop aimé ce moment là da nga kontaanoon jour boobu. mooy euh, aujourd'hui waaw tay soo ñu koy wax quoi ton ton meilleur moment. Ton meilleur moment ci tu dans dans ma. vie. C'est live quoi waaw sa live ok. Euh, bon c'est mon meilleur moment ma life na mais li ci bëri moo ko amee côté côté école quoi parce que en fait bi ma nekkee bi ma CM Diawar Diagne il m'est arrivé euh, classe yëpp boo leen dajalee waxuma la waxuma sama classe de classique yëpp boo leen dajalee man maa fa jëloon paie tu vois donc ce jour là y avait euh, ay affaire Fosco day am donc devant tous les élèves car dañ ma jox ay prix ba attanuma prix tu vois donc lolo bokna ci yo xam gëna a marqué sama life et tout ça. ok kon rapport bu bëgg jang bu mun jàng. scientifique ok scientifique quoi. right ok euh, tey ce pire moment. le pire moment vécu de Bril le moment où xamantene vraiment da nga ne PNJ li dundoon naa ko mais métti woon trop. oui c'est C'est le jour du décès de mon père. parce que ce jour là j'étais... dans dama vie don tourner ji clip donc au moment bu ñu de bay teg caméra yi va faire tourner tout ça on m'a appelé pour wax ma papa bi genn aduna donc voilà bokk na nek na jour bu triste sama jour yépp quoi voilà bu may dem foofu non sax sama tànk yi sentiruma ko woon quoi. ok moo tax tànk yaa ngi ñuy wax euh, woy nga sax dëj woy nga dese donc c'est c'est quelque chose que tu as vécu que tu ma quoi lu ma lu ma lu ma lu ma dund la quoi te xam naa ñu bëri dund nañ ko voilà moo tax bu ma koy woy je chanté avec euh, avec le cœur avec li ma doon li ma doon yëg quoi tu vois donc son bi su ma koy bi ma koy sax enregistré y avait un moment damay way mais après damay arrêté parce que ça me touche moi même quoi ok euh, alors Bril ma tegal la benn gel nii mu taxaw mhm. ñu ne Bril qu'est-ce que tu aimes chez une femme et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez une femme jigéen bu lan nga bëgg ak jigéen bu lan nga bëggul tay ku ah. nekk da nga am sa goût tay ji amna goom pi amna goom sa manager amna goom chauffeur bi euh, sa transporteur bi amna goom ku nekk ak sa goût mais lan moy goût bril fight foo non day bizarre parce que dama bizarre quoi dama bizarre am laa gën bëgg pi jigéen may rétane lo quoi jigéen bi def ay yef dof man may rétane tu vois on est <laughs> on est ensemble tu vois tu fais rire après tu vois rien à voir genre c'est pas. non en fait on est tu mel ay morom quoi tu cap du fort du du tu vois voilà like genre ci ci ci ci tu tu voilà tout le temps tu vois rarement voilà gars yi xamul. mais physiquement bi lan moo la attiré. Euh, poids lourd wala pegele bu sew bi coca cola bi. mag mag Pape mag Pape Birahim nag def nañ benn son ci loolu noonu. est ngeen loolu ku nekk day wax choix wu jigéen choix jigéen muy choisir quoi tout ça voilà tu man li ma ciy choisir taille fine la quoi. coca cola. taille fine taille fine. Eh, kon euh, gel bu pata. non bul waxati loolu wax pata ñooñu ay jéeg lañ. <laughs> ay ay jéeg ak ay diriyànke lañ quoi genre kaa tu dis pata dafa mel ne nga ne sew. après il va se sentir vexé quoi gal yi am yaram yi ay diriyànke lañ ay ay jeek lañ ta am ñoo xam na ñom lañu kon Bril bëggul non bu wax lolu quoi lolu solo won rek. <laughs> non tay fine dal daal ñoo lay daaneel. fine de teint clair wala tay fine de teint noir. Euh, bon bon bon man mum teint clair là am donc voilà. c'est parce que ñu ma koy gis faral d'habitude ñu muy faral di andal yëpp ay xonk xonk xonk booy la. mais des fois mais Max Chabi def nañ def nañ vidéo Gangsta Love te te moom teint noir la mais dafa nice. right ok donc euh, taay fii euh, mu lay reetaanloo euh, bëgg nga jigéen bu mun togg wala jigéen bu dul togg. waaw man bëgg naa loolu quoi ku mun togg parce que voilà parce que dama bëgg lekk tamit quoi donc soo bëggee lekk ngay bëgg ku mun togg. <laughs> est que bëgg nga jigéen bu aay maanaam jonge léeg nga xamante ne yow doo ko xaañ moom moo lay xaañ ko par exemple. mais yéen lépp loolu wax ci lu neex rek bëgg naa ko. pour ñu finaliser. <laughs> non loolu question ji moom moo ko si yokk nag d'accord. <laughs> ok, donc merci à Bril. Euh, dernière question, Bril euh, Fight, euh, président de la République du Sénégal, qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il va changer En tant que rappeur scientifique, nous faisons le président de la République du Sénégal. Tay Sénégal, nous sommes déglu, nous nous xaar xalatu Bril. Nga nek président, lan ngay yok sa rew wala lan ngay En fait, je euh, suis suma le président Sénégal, avant tout je me dit def mom moy changer mentalité sénégalaise. Mom lay jima def quoi j'essaierai de changer mentalité sénégalais yi parce que président lépp lu mu mënti liggéey liggéey liggéey liggéey te sénégalais changé wuñ seen mentalité dëkk bi du dem man bi ma demee Europe li ma gën a neex ci dëkk bi xam lan la mooy nit ñi dañoo discipliné doo gis benn oto boo xam day romb feu day day bourle fa doo gis benn nit bul naan café sànni kaas mbedd mi sañoo ko doo gis benn canal boo xam te dañ fay sànni ay mbalit wala ay xar yu dee donc ça veut ñun. mën nañu def lu ne pour évoluer mais tant que nit ñi seen mentalité yi évolué wul te changé wul dina jafe pour que Afrique mel ne Europe donc du coup su ma nekkoon président wala koo xam te ne mën na changer lu bëri ci dëkk bi damay jéem a essayer changer mentalité sénégalais yi avant may jéem a changer dëkk bi parce que boo changer dëkk bi te changer mentalité sénégalais bi dëkk bi dana mel ne meloon wala pire dëkk bi mënul avancer donc récemment dans la banlieue tu vois man fa laa dëkk fa laay euh, ndamoo et tout ça euh, dañ doon réclamer ay ay canal parce que bu tawee day inondé léegi dañu defal canal defar la ñooy canal yu baax mais actuellement bu xam nga taw amul fan jamono yi yëpp mais boo demee foofu noonu canal yooyu noonu boo fa demee da nga fekk dañ ko mbalit ba mu fàtt léegi bu taw bi ñëwaatee day inondé waat donc il faut que gouvernement bi ñëwaat liggéeyaat loolu lan moo ko waral parce que mentalité yi la. indiscipline bi voilà voilà donc loolu rek laa xam ne bu ñu ko changé ci Afrique tey dinañ mën a dem sori quoi. yaji ki mu signal que waa Europe ñu ngi woote. parce que instant yaa ngi tasaare réseaux sociaux bi page Facebook bi kii France la ñuy wooyee nuyu ko Roxo la. yeah hello bro. allo. allo Bril. waaw bro ziar naa la bu wér. Matar Ndoye. eh what's up ma nekk from la défense Paris. waaw dafa leer de. that's right kooku moo nekk sama clip bi sama clip bi ma def tiital na ma France. yeah. yeah mais naka la. naka waar gain dégg naa yaa ngi Suisse xaw ma. non non ñibbi naa ñibbis naa échange eh, maa ngi Paris. yaa ngi Paris all right all right mais bientôt maa ngi fa maa ngi fa. man ak mbës sax ñoo nekk nii quoi. yeah bëggal ma gars yëpp gars ay ñoom mbës ay gars yëpp bëggal ma. du baax bril bril bril bril. yeah what's up sama gars yi. yeah mbës la mbës gars yi. waaw sama gars yi namoon naa leen. waaw Panaam ñu ngi lay bëggal. mais est ce que yéen a ngi affaire bi. <laughs> waaw ñu ngi waajal loo xam nga ne sama waaj. waaw donc du yomb de non ragalul loolu incha allah ñun dañu war a toj pare yow. waaw <laughs> loolu dafa leer dafa leer incha allah bu neexee yàlla. waaw. yeah mais ko tey la. merci beaucoup bro. yeah yeah kontaan na ci yow quoi. dëgg la merci kontaan naa ci Yeah, bu baax. yeah gars yi ngay bëggee fii xam nga na ma wan bi bril Yeah, mooy loolu yaa ma gën a xam. yeah dëgg la maa ngi leen di bëggee bu baax a baax te bi ma demee foofu dama sax jaaxle quoi parce que li fekk ci ay bril quoi voilà kontaan naa ci yéen maa ko maa ko mën a témoin nga jaar si métro yi ginnaaw la gën nga lay arrêté di dëgg la dëgg la photo kan la bril dëgg la dëgg dafa leer dëgg la non yow international nga doom day international nga du biir Sénégal kese dëgg la dëgg la waay te benn fan bu nekk fii ba Lyon mi ngi lay bëgg nii dëgg la bëgg leen ma boobu bu baax a baax waay waaw mooy loolu kontaan naa ci yéen mais inshallah du yàgg maa ngi ñëwaat def ak yéen benn affaire bu doy waar ñoom ci ñoom koy togg mais ñoom koy togg ñoom koy togg dina baax merci beaucoup ok merci les gars nous sommes déjà di euh, depuis euh, Paris la France euh, mention spéciale à tous les connectés via la page Facebook KINGFM hein. on a reçu des tonnes et des tonnes de textos en en finir Mon ngi wane job bi nice na gars enjoy bu li félicitations congratulations jàpp teew job tamit quoi toujours pour être au top pour être number one. merci merci. Mm. Ok, donc merci à tous ces euh, internautes qui nous ont appelés euh, aujourd'hui euh, durant l'émission. Alors Bril, on t'a fatigué jusqu'à 1h30 minutes. émission minuit, nous déjà lolo. J'espère que tu as aimé l'émission d'aujourd'hui passée avec les PNJ parce qu'il y a des plateaux radio, des plateau télé. Mm-hmm. Mais comment tu as trouvé l'émission en tant que en tant que telle Yeah, l'émission dafa dafa originale parce que dafa firi quoi. Là on dirait qu'on est on est dans notre chambre ñoo ngi nekk di ou bien ñoo tok studio di nice quoi. Donc tout est naturel. Donc question yi fi ñëw dafa naturel parce que c'est la même chose que y ngay dund ci mbedd bi des fois nga romb koo xamante ne li nga def ko neex mu bégee des fois nga romb koo xam li nga def neex ko mu donc c'est naturel quoi pour man loolu loolu moo am original. amul non fi nga war a toog wala li nga war wax micro bi nga war tu es free t'es free ñëw fa def émission bi ñëw ñëw yore place animateur yi c'est c'est la première fois mu koy tu vois affaire bi daal dafa free te dafa nice content na ci émission bi bu baax baax et puis tamit euh, euh, damay profité ci lii di remercier di remercier ñi nga xamantene depuis le début ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi toog scotché ci radio bi di déglu émission bi ñenn ñi en live sur Facebook maa ngi leen remercier bu baax a baax baax di leen remercier tam ci invitation parce que y'a ay millions d'artistes du nekk Sénégal ngeen bay ñep ngeen inviter Bril Fight Fo et de la musique bini. tamit nga ñëw de la musique bi voilà je suis vraiment content en tam en temps tam ma profité ci lii di euh, di jégalu gars yu ci xaar bi ñu xaar ba une heure trente di euh, di déglu tamit di jégalu tamit bu fekke Bril Fight fo wax na fi lu mu warut wax et tout parce que depuis le début ma ngi leen signaler que je suis nit la bo xam nat matuma je suis un je suis un imparfait donc yalla kese mo parfait donc des fois ñu def no xam non la des fois ñu xam ñu def no xam du noonu donc voilà di jégalu ñep di remercier ñu don déglu ñep et puis, euh, est-ce qu'on peut avoir euh, le numéro de ton manager et ton numéro non, ce numéro personnel fan si ñoo koy laaj ne ko s'il te plaît ku si mel ne Aïssatou Bril sax la ko tuddee depuis Salé, Aïssatou bëgg na trop nee na ce numéro la soxla pour di la di dégg wala di xool say statut affaire yu demee sama numéro WhatsApp dinaa ko que, ku bëgg personnel WhatsApp voilà ku bëgg seen sama statut whatever mais ku moo ko ku ko ajouté un message bu sonn ma yéex ko tontu bul mer quoi dama koy yéex a quoi D'accord. accord. Eh, léegi numéro WhatsApp là là. numéro WhatsApp c'est 77 321 88 39 numéro WhatsApp. 321 88. 39 39. yaa bu mon numéro pour que da ma soxla juste pour que pour ñu wala da nga soxla pour business wala da nga soxla pour studio prestation studio muy programmation musicale wala lepp lu jëm ci musique wala da nga ma soxla pour concert lepp lu jëm ci professionnalisme là son manager mo koy gérer mënuma ci dara numéro bi c'est 77. 77 parce que li c'est très important hein. mooy maanaam euh, képp ko am concert sa école. voilà ko am bien sûr euh, soirée bo wara def dîner de gala forever lu mu munti whatever whatever. studio tout ça 77 036. 036. 48. 48. 31.

Bril sax laa koy laaj Bril. loolu loolu sax man dama jël en charge. parce que voilà en direct laa wax. xam nga tey Eva. voilà Eva man sama jigéen la. son boobu yaa koy yaa koy créé yaa koy génne. quoi je l'estime beaucoup sama jigéen la ma euh, mariage man dama koy defal loolu cadeau spécial incha allah loolu ko laaj dara. ok kon manager bu si dugg ah, kon man man Bril la boobu ah. d'accord bu fekkee du Eva keneen la par accident xam ñaar nga may dix millions. <laughs> waaw bu tiital Eva waaye moo ngi déglu waaye dana ah Bril yaa wax lool. non dix millions juste puis ci ma waxee loolu après du du ma se changer. <laughs> <laughs> ok. Donc, en tout cas, merci à toi, April Fightful. Euh, nous les remercions. C'était un plaisir aussi, nous, en tant que PNJ animateur. Euh, parce que taille, euh, souvent, euh, artistes, sont invités, une heure de temps, deux heures de temps, bien passé avec nous, si nous découvrir. Euh, taille, nous, on a japonais, brille sur télé, brille sur radio, ou bien brille sur réseaux sociaux, il la ham. Mais taille, deux heures de temps, bien, d'aller, hmm, non, vraiment, quand brille, n'est que tout à l'heure, n'est que brille, ni le watché, bopam. Brille, ni mouille qui s'est clippé, gagne, gagne, n'est que mouille, ni le oeufé. On a ah, encore jappé. déguisé sàcc casquette bi jël t-shirt bi xaw ko kii buux ko nii ah. àdduna amul solo bro lii lañ lii rek lañ am ci live bi nii ka fooree bégee man nee naa la ku dul reetaan rek ma jaaxal. <laughs> en tout cas chapeau à toi euh, soo demee nga nuyul ma Marichou bu baax léegi euh, li ma bëggoon ban son ngay tëjee. Euh, am nga fi ay anniversaire ay anniversaire ah oui. su mel ni maman bu Badou woote na sànq pour hmm. souhaiter joyeux anniversaire am na benn son boo woy remix happy birthday bu nice. yàlla na la yàlla fay sa xol. wan la sa tekki foo xool nga dund santan sa ordonnance bëri le alal bay ma dépense déwén yàlla nanga ko fekkee waat happy birthday yéen leen souhaité happy birthday ñoom ñëpp lu ñu bëgg ñoo xam yàlla leen ko yàlla defal leen ñaanal gudd fan ak wér yaram ñu am lépp lu ñu bëgg ñu teew ko ay ati ati ati ati at donc sama son ma def euh, remix si di si di ki jabate happy birthday may naa leen ko live and direct. ok naa ko virage gars mais man sama son bi laay laay laay laay tënkee quoi sama son bi bi bi. ok alors. J'ai joyeux anniversaire euh, ni le Fatima bole on aussi anniversaire donc happy birthday aussi à elle à madame Anne euh, ni donc tous les auditeurs natifs de ce jour joyeux anniversaire de la part de Bril euh, Fight Faux alors sur ce il y a Jibi de Love FM bien sûr qui fête son anniversaire aussi il y a les jumeaux Abdoulaye et Malik de la PND Family qui fêtent leur anniversaire donc tous ces auditeurs encore une fois joyeux anniversaire demain c'est la fête de la musique bien sûr restez bien scotchés voilà parlant de la fête de la musique PND hein. donc demain ouais UCAD, préparez-vous. Dinenf Théo, Dinenf Jar avec Awadi, Big Mega Concert avec euh, King FM. Ah. Est-ce que nous avons pu faire des Dinenf Vrush en direct, puis nous avons apprécié. Donc, UCAD, euh, PNG, Dinenf Jar, euh, tomorrow, bien sûr. UCAD vers 21h de gens comme ça. Ça sera du lourd, donc préparez-vous. Demain, c'est notre dernier numéro, 21 h 00 à ne pas rater, bien sûr. Demain aussi, c'est la France qui doit jouer. C'est ma deuxième équipe, donc nous avons Ngolo Kante, nous avons joué, nous Matuidi, bien sûr, nous Paul Pogba. Encore une fois, bonne chance. Nous avons Argentine. Argentine, beau, beau Attention, France, de brille. Messingué, c'est votre après Sénégal. Ok, merci à tout le monde. Donc, euh, c'est avec ces sons de Bril Fight Faux qu'on va se dire au revoir, bien sûr, les auditeurs. One love à tous. ñi teel a tàmbali soobu ci xare bi doon musula yomb ñoy mat ci tal bi yag fer ñett ñett ñu bàyyi mu des ben ne elen da expo wi teg lu yéeme nek laaj dëgg daaj te du expo war a libéré ñu jël seen xel yi soppi kasto maîtriser art bi wàcce Mozart ak Picasso yore xalima docteur bi ñu loodul gaaw wax xam teg lu leer ba ñuy def sax ñoo naan la dañuy dégg wax xam may ki mën ci rab bi dañu bëgg a yëg ni gu jum toog ci puuso jox la son yu am bi waa gem bi du neema paaso puuso yore rab ku raar comme photo bu ablay wat Wade am karaw du ma rawante ak yéen maa ngi seen pol du lañuy ñuy xool ku raw mën a raam mën a way teg ci mën a bind gën a aay yokk ci mën a bu ne maa ngi fecc film léegi faji bi di di ko jaay bul ma ko ak benn rappeur maa ngi ci bañal mondu bokk ñu heure man la yàlla rab bi li président yi waxal chef de bari man la acteur bobo degu la te bala ti yi ma ma wa Real fight for Ya uwo we ma, ne ma. Real fight for Man ma degu ma wa Real fight for ma. real fight for Real fight for Fuma dege pit ay rim yu gaare ñoy di kat dëgg buum yi